Euh, ñu ngi tolloon démb ci suuratu baqar tolloon ci ñaareelu xisib bi xëy na bi ma gàddu dafa wuute téere yi ma miinoon di gàddu ndax bii moom duy indi li fu ñu toll euh, yemoon ci suuratul baqara isib bu jeex na isib bu njëkk bi yemoon ci wama allahu bi gaafilin amma taamaluun foofu la ñu taxawoon démb sunu borom nag di wana li ngeen fi nekke guddi ak bëccëg li positif la wala lu négatif la dara rëccu ma ci te bise ngay ñëw nag ma wan na dara rëccu ma ci bis di ñëw sax xam nga ni jamono tëddee su su jamono jii ñuy dund lii ñuy dund ci jamono yi façon yi natt nit ñi demoon nañ ne ba yaakaar ne adduna bi seen loxo la ne yàlla xamal na leen wama allahu bi ghafilin amma taamaluun daal di réussir na mu gën a gaawee ci na mu gën a ndawee nag gën a tuutee sax teg ca mm-hmm. war a ci afa tatmauna an yuminu lakum wa qad kaana fariqum minhum sunu borom subhanahu wa taala doon waxante jullit ñi dañuy wax ne ah yéen ñi bëgg lu baax di ci xëy di ci gont ah da ngeen a yaakaar ne ñi nga xam ne ay franc-maçon lañu wala ay góor jigéen lañu wala ñu mel ni ki ñoom daal da ngeen a yaakaar ne danañ ñëw ci cell te gi ngeen nekkal ngeen yaakaar ah déedéet mënul ne ndax maa ko bëggee noonu waaye terewul nag bu ma ne maa ko bëggee noonu terewul it ngeen wax de ngeen wax la ngeen war a wax jooytu fa ngeen ko war a jooytoo afa tatmauna a yéen juli ñi ndax da ngeen di xemeem ndax da ngeen di yaakaar ak bëgg ay yuminu ñu gëm ñoom yahudi lakum ñeel leen mooy ñi gëmul yàlla da ngeen a yaakaar ne daal wala ñu nekkul ci njub wala ñu nekkul ci lu sell da ngeen a yaakaar ne dañoo war a gëm yen yéen ni ngeen war a la ngeen bëgg waa dëgg yàlla moom lañ bëgg de waaye sunu borom nee na du ne ndax lu tax ñoom yahud yi am na ñuy sëriñ waaye itam lobby yi nga xam ne moo xew am na ñu nekk seen ginnaaw ñoo xam ne ñoom la ñuy déglu ñoo xam ne ñu xam lu xew la ñuy sax nag waxad kaana dëgg dëgg nag nekk na am na fariqun ab parti minhum ca fóore ya ci seen borom xam-xam ya ci seen fóore fa daaral ya ñoo xam ne yasmauna dañuy dégg kalaam allahi waxu sunu borom subhanahu wa mooy am na ci fóore ya ñoo xam ne jàng nañ tawraat jàngin wu wér xam ko xamin wu wér noonu nga gise ci jullit ñi mu am ci ñoo xam ne dañu jàdd yoon xam nañ li yàlla wax xamin wu wér yasmauna kalaam allah kon da ngay bàyyi xel ne al ibratu bi umumi lafsi la bi xususi sabab na mu wàccee woon ca yahud yi di waxanteeg ñoom kon bépp jullit boo xam ne dangaa yor naa fekk gu mel ni gi yahud yi yor tabarakallahu da ngay yor wàccuwaay boobule summa yuharrifunahu topp ñu soppi ko mooy ñu jengal ko soppi ko min baadi ma aqaluhu gannaaw ba ñu ko déggee xam ko ba pare xam ne lii la yàlla wax ci tawraat ñu dem jël seen waxi bopp sësale ko fa def ko fa di wax ña ñuy wax la ñu bëgg ñu wax leen ko loolu itam la am ci jullit ñi am na ñoo xam ne alquran moom nu leen neex lañ koy soppee yuharrifuuna min baadi ma aqalu kon kooku nga bàyyi ko xel bañ ko tënk ci yahudi kese te waxu mbir moom ñoom na xam na lii ñuy message bii ñuy dégagé ci nit ñi xam nañ ne lépp ay kàcc la lu wuuteeg li sunu borom subhanahu wa taala bëgg la dégg nga waxum yaalamuun nee na wa ida laqu ndegam daje na ñoom ñoom naafeq yahud yooyu mooy yahud yi ni mu amee ay naafeq comme ni jullit yi amee ay naafeq yahud yi noonu ame ñu amee ay naafeq ñoom naafeq yooyu suñu dajeeg alladina amanu gaa yi gëm sayduna muhammad gëmin wu wér nangu nangu goo xam ne amul benn nag raxte am nañu fit wax na daal aman naa gëm nañu sayduna muhammad mi nga xam ne moom la ñu yàlla sunu borom subhanahu wa taala doon ñu wax ci seen téere ba ñun daal gëm nañ ko comme ni ngeen ko gëmee waaw ñi nga xam ne itam ci lëb yi lañ nekk dégg nga maam droit de l'homme yeeg ñu ak ñu ak ñu ak ñu ah suñu dajee ñu gëm yàlla dañ laan ne ñun kat aman naa gëm nañ comme ni ngeen ndax boo wootee gàmm wax na la ko ñu ñëw nga woote si siyaar ñu ñëw nga woote dégg nga maam conférence ñu ñëw di li dajeeg ñoom ci jàkka ji di def lépp pour lan bëgg a jàllale seen message yu bon yooyu waaye na ngay xamee ni ñi ay naa fekk lañu bu att yàlla taxawee nañuy contrecarré atte ba ak nañuy firi atte ba ci ngay xamee ne gars yi ay bandi lañu sunu borom ne wa iza qala bu fekkee na dellu na mooy wàññiku na ñoom ñi nga xam ne ñooy naafeq yi ak franc-maçon yi baaduhum ñenn ña bu ñu delloo ila baadin jëm ci seen ñenn ña xaalu ñu am fitu wax seen kilifa ya leen yebaloon ne maanaam suñu delloo ci seen kilifa ya ña nga xam ne ñoo leen yebaloon xaalu kilifa ya leen waaw yéen yéen a def haydi di atu xaddisunahum ndax da ngeen di ubbee jullit walla wala ndax da leen di waxtaanal ci li ngeen xam wala ñun liñ leen jàngal ngeen déggee ko ci ñun fóore yi ah da leen ci yee waroo leen ne leen cee yee jaaduwul gisuloo temps yi loolu neex naa dégg jamonoy corona bi kooku ñuy wax di jurawul bam ne chloroquine bi day faj nangam tàngam gaa yi naka nag lu tax ngay wax loolu africain yi pour ñu jëfandikoo ko nangam nangam bëgg a dal ci kawam ak ta xaddislahum bima fata allahu ci li leen yàlla xamal ngeen jàng ko ci seen tawraat jàng ko ci seen injil hmm? bima fata allahu aleykum la ñu jàngoon ñoom ci tawraat ak Eh, tabaarakallahu ñu ñu ñu num tuddati ko ñu num tuddati ko la ngeen fa jàngoon ngeen bëgg leen kaa wax kon day wane ëllëg fu ngeen mën a dem daañ leen yey fu ngeen mën dem daañ leen yey comme coow li bëri na nag jombi nañu ah temps yi moom gis nga li ci xew Trump moom bis bu ne waxu ku jombi ku ne dana ko wax bis bu set mu wax wax bul bokkut ak la ma waxoon dama benn waay doon wax naan comédien la mu doon doon wax nee na Trump de comédien la président comédien la rek waaye booy xool Al Jazeera wala lu demee ni que France 24 ci jamono jile bis bu set bu weexee lii ëllëg nga gis ko mu wax lële bu waxee lii ëllëg mu wax lële moom daal kenn xamul naka la waaye itam loolu yàgg na fi lu tax ngay wax diw nangam xanaa da bëgg mu yey la waroo leen leen wax da ngeen leen war a bàyyi noonu ci lëndëm gi rek ñuy kalang-kalangi bi ma fataha allahu aleykum ke la leen yàlla ubbil xamal leen ko li xaajukum pour ñu yey leen bihi ca xamal ga ngeen leen xamal loolu yàlla xamal leen inda rabbikum fi seen borom ndax bu ngeen leen ka xamalee ëllëg ñoom ñu topp ko te yéen nangu leen kaa topp ah dañ leen di yey kanamu borom bi dañ naan ñii xamoon nañ ko afala taakiluun kon te ngeen am kel hmm? awala yaalamuuna xanaa dañoo xamul anna allaha naka yàlla yàlla mu xam ne maa yi sunu lépp lu ñuy nëbbu wa maa yu'linuna ak lépp lu ñuy feeñal tabarakallahu ma ngoog kon anna allaha yaalamu maa yusirun wa maa yu'linun nee na wa minhu am na ci yahud ak nasaraan wala ci yahud seen fóor yi am na ci ñoom walla am na ci yahud yi ummi yu na ñoo xam ne ñu jàngul lañu ay illa teret lañu lañu juddoo woon ci seen yaay noonu ñu mel daal mënuñ jàng mënuñ bind waaw mënuñ jàng mënuñ bind ba ñu feree daal nanu meloon ba léegi noonu rek lanu mel ñooñu mooy ay ummi kuñ ko wax nag ku dul sallallahu alayhi wa sallam rek mooy loolu moom yàlla dogal na moom mënul jàng mënul bind mhm. ummi yu ne yooyu nag noonu mu amee woon ci yahut ak nasaraan ñoo xam ne jànguñu dañuy dikk fóore yi ne leen nangam la tawraat wax te nangam jooju tawraat wax ko du dëgg noonu la amee ci jullit ñi ñoo xam ne jànguñu dara dara day mel ni ay kutumba lañu laa yaalamuuna alkitaaba xamuñu dara dara ca tawraat waaye itam am na ci jullit ñoo xam ne xamuñu dara ci alquran xamuñu ca illa amaani lu ay duur yoo xam ne duur nañ ko rek duur nañ leen ko maanaam wax nañ leen ko ñu jëlee ko ca fóore ya fóore yi daal ñooy créé seen i wax monte ko ne leen lii la yàlla wax ca tawraat waaye jullit ñi yàquñi bëgg àdduna jaral leen weddi yàlla ñoom itam noonu mu amee woon ca yahud ya noonu la amee ci jullit ñi wa inhum déet ñoom xam nga nag in bu fekkee dafa songu illa xarful boobu le la ca gën a bëri dañ koy jàppee mu nekk naf moo tax mu ne wa inhum déet ñoom illaa yazunnuun nekkuñu lu dul ci ay njortu ak defe naag yaakaar na te mooy la nga xam ne moom la leen fóoree wax rek te lépp a ngi tegu ci defe naag yaakaar naa nee fa waylun mbugal lilladina ñeel ña nga xam ne yaktubuna ña ngay bind alkitaaba téere ba bi aydihim ci seen ay loxo nga xam ne ñoo jonjoo mbind ma wane ne lii la sunu borom wax te fekk na loolu ñu wax ne moom la suñu borom wax ak la suñu borom wax dafa wuute loolu ba léegi mi ngi am ci jullit ñi waaw bis bu set nga dégg ci tele bi ku ñuy woowee borom xam-xam ne lii la yàlla wax te du mës a wax fu ko yàlla wax wala lii la yenent bi wax te du mës a wax la yenent bi wax hmm? summa yaquluuna topp ñu am fitu addu wax ne haada lii ñuy jàngale mooy atte bii ñu joxe ci télé bi wala atte bii ñu joxe ci site bi wala bii ñu joxe ci whatsapp bi wala bii ñu joxe ci rajo bi min indillah mi ngi bàyyi koo ci yàlla wane ne waxu yàlla la lan moo tax nag loolu ñuy am fitu wax na lii kat waxu yàlla la pour lan poñetum aduna kese kese moo leen ko jaral li yassaru pour la ñu jënd bi ci waxu yàlla ñu jënde ko sama nan njëg xalilan bu ñàkk solo lool bëgg pos bëgg daraja ne da ngay dund dundu VIP dundunu euh, bu lix dundun bu tabarakallahu yooyu nga bëgg dund yi gars yi dund yëpp nga ne da nga koy dund te amuloo ko te nekk borom xam-xam boo gëmulee yàlla ah tabarakallahu dana la jaral lii noonu bu ko jaralee woon yahudi yi gis nga léegi ni mu ko jaralee jullit ñi ba fuñ toll ñu ngi koy jooytu li yassaru bihi saminan qalila sunu borom ne wa baax na fa waylun ne fa waylun mbugal lahum ñeen la leen mimma katabat ci la bind na ko ay diim seen ay la seen ay loxo bind te du dëgg lépp naa leen ci duma man suñu borom subhanahu wa taala wa waylun mbugal lahum ñeel na leen waylu nag dañ ne xur la ca jahannam loolu la yonent bi wax mimma yaksibuun ci lenn ci la nga xam ne ña ngi koy fàggu di ko lekk ci xeeti corruption xeeti tappale xeeti xeeti xeeti dóor mimma yaksibuun lépp laa leen di duma man yàlla suñu borom subhanahu yahud nag suñu defaan dara nga ne leen lii ngeen di def baaxul am nañ fitu wax na ñun daal xam naa bu ñu mënulee ñàkk dugg sawara itam du ñu fa yàgg xam naa bu yàggee ba yàgg moom du romb ñeen fukki fan ya maam ñoom jaamu woon nag wa ba yent yàlla muusee demee ca ràndiwum ba pour jëli ji kàddu borom ba ñeen fukki fan yam fa amoon daal xam naa bu fekkee daañ ñu teg ay pen daal pen bi moom duroom bu ñeen fukki fan sanction yi ñuy teg du romb ñeen fukki fan de waqaalu wax na ñoom ñu gëmul yàlla lan tamassana du ñu laal mukk mukk mukk annaaru sawara illa ayyaaman lul ay fan yoo xam ne maaduda yu ñuy konte la te mooy ñeen fukki fan lii la ñu wax bëkk gëmloo julit yi te du dëgg xul na leen attaqastum ndax da ngeen bàyyil xel foofu nag na ñaari hamza ñoo fa nekkoon a tataqassum a attaqassum waaye hamza gi nga xam ne moo nekkoon hamzatul wasli gi ak hamzatul istifham gi ñaari hamza yooyu suñu dajee dañuy doyloogu listifham gi rek jële gi nga xam ne moo nekkoon hamzatul wasli gi ñuy jàng loolu xam nañ li may wax ndax ñaari hamza yi jàngandoo ko dafa diis ndax da a am wala ndax da a jàpp indallahi fa yàlla ahdan kóllëre ndax aha ndax da ngeen jàpp fa yàlla ak kóllëre dégg nga kóllëre guy wane ne yàlla ñeen fukki fan la waxanteeg yéen rendez-vous bu fekkee li ngeen wax noonu la de falan eh falan yuxlifa du wuute allahu yàlla sunu borom subhanahu wa taala ahdahu kóllëreem bu fekkee la ngeen wax noonu la ne da ngeen a yàlla kóllëre nit mooy fasanteeg yàlla kóllëre ba mu yàgg fecc ko waaye yàlla moom du fasanteeg nit ba mu yàgg fecc ko nit a koy fecci yàlla moom waaye dama yaakaar naa la ñuy wax noonu rek de am taquluun wala da ngeen di addu alallahi waral yàlla maa laa taalamun wala da ngeen di wax ci yàlla ji lu ngeen comprendre lu ngeen déggul lu ngeen xamul atte bi lan laag nan la ñu demee loolu laa bëgg a leeral balaa aha fay sax balaa aha da ngeen di sax sawara de xarfu balaa nag saa bu ñëwee moom tabarakallahu toujours buy tontu day tontu tontu loo xam ne da daan dàq waaye tontom lii dafa mujj di tontu luy saxal comme ni nga xamee ne baatu na am ak jëyri ak ajal ak yu ni mel saa bu ñëwee moom bu fekkee da nga indi ci tontu benn muy saxal la ko jiitu wala muy dàq waaye balaa moom toujours tontoom lu mu ñëwoon rek luy dàq la waaye fii moom dafay saxal waaw balaa ah kay sax dëgg kay mu ne man kasaba képp ku fàggu sayyi'atan ay ñaawteef ay gis nga baatu sayyi'a xam nga sawwa'a moo fi nekkoon nga tëgg ko fayilun muy sayyi'un jàngoon nga di a koraxe <laughs> tabarakallahu wala koraxe nekk fi wala Ablaye Njaay jàngoon nga ne waaw ak yaa fu ñu dajee ci baat moo xam waaw gaa jiitu wala yaaga dagan na soppi waaw ga yaa hmm? nga soppi ko idgaam rek muy a jeex na loolu miin nga ko nee na képp ku fàggu sayyi'atan ñaawteef ak lu ñaawteef ñaawteef yi nag bokkaale yàlla la ngisal la réeréylu la sayyi'a daal baat bi nakira la ma ngoog wa axaatat peeg xati'atuhu ñaawteefam yooya bihi ci moom mooy nga xam ne ñaawteef yi ñoo ko wër ba mu sax ca ba dee ca xaw ma ñan de waaye ñooñu moom fa ulaayka yoolee gaa yi ñooy waa sawara te hum ñoom xaalidun way béel lañu way sax lañu fiiha ca sawara soosule duñ fa génn waliyaadu billah dégg nga neewa fàttalikul ida xas naa jamono ba ñu jàppee misaaqa bani israil kulle rek bani israil ga ñu jàppoon kaak ñoom ca tawraat bokk na ci la ñu fasante woon ak ñoom kulle rek ca tawraat bokk na ci lañ leen waxoon laa taabuduun xam nga boo xoolee jumla bi xabariya la waaye dafa yor maanaam nax yi baat bi ci boppam boo xoolee xabariya la waaye dafa yor maanaam naan nga maanaam maanaam na nax yu dégg dégg nga mooy bu leen jaamu xam nga jumlatul xabariya ak jumlatul inshaiya xabariya mooy loo xam ne bu ñu ko waxee mën nga vérifier soo paree na dëgg la wala nga ne du dëgg inshaiya nag moom amul loolu mënu wax ne dëgg la mën a wax ne dëgg ndax doo ko ci déggee xam nga lekkal lekkal suñ la waxoon lekkal tey misaal nooy waxee ne kii wax na dëgg wala waxul dëgg lekkal ñu wax la ko baat bi loo ciy déggee wax na dëgg wala waxul dëgg waaye buñ ne akala nag ci misaal ci gàttal rek lekk na sañ nga ñëw seet kañ wax na lekk na soo ñëwee fekk mu lekk ndax information la soo ñëwee fekk lekk gi am nga ne dëgg la bu fekkee lekk gi amul nga ne du dëgg kon xabaar moom benn mu nekk dëgg wala mu nekk kàcc rek loolu koy jàng ko ci téere yi tabarakallah ñu jàng wàll woo xam nañu baa wax tabarakallahu bokk na ci la ñu farante woon mooy bu leen jaamu illallah kudul yàlla wan na ngeen rafetal ba tey bil waalidayni ci ñaari waajur yi ixsaanan ak rafetal waaw ixsaanan ak rafetal ñu jël masdar taxawal ko taxawaayu dégg nga maam sifa maanaam fu sifa si waroon na ne masdar mi dafa ñëw taxaw taxawaayam waaw kay nee na gannaaw ba ma ngeen rafetalee seen digganteek seen boroom seen digganteeg ñi nga xam ne ñoom leen jur gannaaw ba xàq yàlla jàlle daal ñoom ñoo ci tegu na rafet waaw na rafet doonte ñaar ñu gëmul yàlla la sax la lala yàlla boole ñu nekk si ay waajur dama ne na rafet ihsana wadil qurba ak jege ñaale yi na rafet sa diggante jege ñaale yi wal yataama ak njirim yi njirim nag mooy koo xam ne baayam dafa a te matagul mukallaf waaye bu lu mu nekk nekk gone te mu mukallaf ci misaal ci ati aada ci misaal ah baayam bu faato it kenn ko waxati mu kala jirim bi waaw kay waaye bu fekkee ci loo xam ne la dégg nga maam nekkul nit moom ah tabaarakallah kooku moom bu yaayam faato wala lu ci mën di doon rek moom boobaa dañ koy tuddee jirim jirim daal ci doomu aadama la su fekkee koo xam ne dafa ñàkk baay nag kooku baay lañ koy wax waaw waaye bu fekkee leneen la moom pour ñu tuddee ko jirim mooy day fekk yaayam dafa am nu tuddati waxulu wax leen linnaasi ci nit ñi wax leen ci ñoom kàddu goo xam ne xusnan comme lañ la waxoon fee léegi waa jël masdar taxawal ko taxawaayu dégg nga maam naat ngir lan wax ji gën a jekk ko rek gën a rafet gën nangam nangam li naa si nag suñ ko waxee mooy nit ñëpp ti gëm yàlla ki gëmul yàlla yéen bokk diine bokku leen diine yéen a bokk mbokk wala bokku leen mbokk en tant que xamee woo ko bon daal sooy jëmale kaddu jëmale ko ci moom mu nekk lu rafet wa qulu linnaasi xusnan maa wax li su ko defee bokk na ci la tey waa kii mu na ngeen taxawal asolaata julli ci waxtu ya ak lamu lamboo ci ay charte yëpp comme niñ ko jàngee woon démbu de waatu na ngeen di joxe ba tey azakata asaka ba ma waxee lii ngeen nangu ko waaye xoolal iltifaat bi mu def summa tawallaytum topp ngeen du mooyu loolu nag façon la ci neexalu wax sa saamiya pour gën a jàjjuwaat gën a amaat sawk ci wax ji ngay waxanteeg moom xam nga waaqi musala waxul summa tawallum waaye def na summa tawallaytum topp ngeen du mooyu yéen ñii ma jàppanteeg woon a kóllëre ga ca tawraat yéen ñëpp jox a ginnaaw loolu illa qalilan lu dul lu tuutee tuuti waaye gis nga loolu mu amee ci yahut ak nasaraan noonu la amee ci julit ñi gis nga ci ñoo xam ne la yàlla fasante woon ak ñoom kóllëre jaamu leen ko bu leen ko bokkaale ak dara na ngeen rafetal jëme ci seen ñaari waajur dégg nga maam rafetal ci jirim yi di wax ci nit ñi lu baax di taxawal julli di joxe asaka suñu borom ne su ma tawallaytum topp yéen julit ñi du mooyu ngeen wax boobu illa qalilan lu dul tuuti tuuti minkum ci yéen ñu ak ci nangu waaye am na ci bëri ci yoo xam ne jox nañ ginnaaw waa yeen yéen mbir moom yéen moo aridun way du mooyu ngeen atta yi comme ni ko seen maam yee du mooyoo woon mu ñëw nag ci beneen kóllëre goo xam ne dañ ko jàppoon nag yahut ak nasraan yahut ca tawraat mu mel ni dañoo dem def la leen neex nee na fàttalikul is axas naa jamono ba ñu jàppee misaaqakum seen kóllëre ak yéen ca tawraat ñu ne leen bokk na ca kóllëre ga de ñu ne leen lii ñuy bëgg a wax waxoon nañ leen ko waaye xay na ñu junj la xisa bi ñu junj la xisa bi euh, ñu junj la xisa bi suy la ko junjee da xam li mu bëgg a wax mooy lan mooy sunu borom. madinatul munawwara dafa am ñaari giir yu fa nekkoon genn gi moo tuddoon laws genn gi tudd xas rek ñoom ñoo nekkoon madinatul munawwara waaye nag am na nooneel goo xam ne moo doxoon seen diggante avant yàlla di yónni ci ñoom benn yenent waaye itam amoon na fa yeneen quartier yoo xam ne ay quartier yahud lañu woon juif yi ñoo fa nekkoon am na ci quartier boo xam ne ma nga tuddoon Quraysata am boo xam ne ma nga tuddoon Bani Nadir ñoom ñu ci ne nag dañoo yàlla dafa sante woon ak ñoom kóllëre ca tawraat ci sariyaatu Muusa pour ñu jëfandikoo ko lam ci fasante woon ak ñoom kóllëre bokk na ca mooy buleen rayante ñu ne d'accord bu leen noonante bay génnante seeni kër d'accord képp koo xam ne nag jàpp nañ ko ci àll bi ñaka jàpp otaas di ci laaj xaalis na ngeen ko joxe te bu leen jàppante otaas ñu wax loolu ne d'accord ba ñépp nangu ñoom ñu wëlbatiku defi leneen diggante Laws ak Xasraj nag comme ñoom mësuñu juboo ci xeex lañu mës di dëkk kenn ku ne am koo faral maanaam Quraysata ànd ak Aws bani nadir ànd ak xas rek te ñaari awsu ak xas rek fuñ toll ñoom dañ daan xeex jamono boo xamee ne awsu nag ak xas rek ñi ngay xeex da ngay gis xuroy sa taw ci boppam jàppale laws nadir daal di jàppale xas rek te ñoom ci biir ñi ngi rayante su ko defee ci biir xeex ba su waa awsu amee kuñ jàpp ci xas rek te mbokk ci xuroy sa da nga gis waa bani nadir ñëw daal di joxe jot pour ñu bàyyi ko waa bani nadir yiy jàppale xasraj itam su xuraysata amee kuñ jàpp ca ñoom ca biir xare ba jaaree ko ca biir xasraj da ngay gis yi itam ñëw joxe njot pour ñu bàyyi ko kon nga gis ni àtte bi la ñu kóllërante woon ak ñoom ñoom loolu rek lañ ci jëfandikoo waaye leneen lu dul ñoom pacte ba dañu ko sànni ci àll ba loole la suñu borom di nettali ci diggante bi moo tax mu ne laa tasfikuuna bu leen tuur dimaakum seen deret yi mooy bu leen rayante muy benn wala tuxrijuuna bu leen génne anfusakum seen bopp min diyaarikum bàyyi ko ci seen kër ñenn ñi bu ñu génne ñenn ñi ngir ëpp leen doole de lii laa waxante woon ak yéen summa ngeen saxal kóllëre googu loolu ba léegi da ngay dem ci ab dëkk gis fa ñoo xam ne ay famille lañu ay am seen diggante ñuy ñuy taxawee kaabe ñuy xeexante ci seen biir te lii jaaduwul li ab nangoon nangoon tey kër ak nangoon tey place nangoon tey lépp am ci société gi yëpp ñii far fi ñii far fi loolu ni mu amee woon ci yahudi ba léegi mi ngi am di te waantu mbir moom yéen te seedu na ngeen seede woon seede boobu ci seen bopp na lii du mës a am ndeke da ngeen doon sóob rek su maantum topp yéen haawulaa yéen gaa yi yéen laay wax tax lu yéen a ngi rey am fusukum seen bopp ndax yéen a ngi rayante ndax ñuy jàppale awsu buñ jàppalee awsu ña jàppale xasra jàppale xasra ngeen jàkkaarloo waat di xeex yéen a ngi rayante di te loolu laa leen wa tuxrijuuna yéen a ngi génnante wa tuxrijuuna dana génnee wala da ngeen génnee fariqan ab parti minkum ci yéen min diyaarihim ñu bàyyi ko ci seen kër ya te loolu tere woon nañ leen ko tazaaharuuna ngeen di jàppalante la waykat ba ne tazaahartum min kulli awbin wa wijhatin ala wahidin la ziltum xarna wahidi nee na dimbalante ngeen ci bépp côté ak bépp anam ba mel ni kenn yàlla bu ngeen dañ di nekk benn béjjén nga xam ne kenn du leen tàqale baatu tazaahartum kon arab dana koy jëfandikoo ci jàppalante fii nag tatazaahara la woon waaye ñaari taa yi comme ni nga ko jàngee woon ah tabarakallahu rek moo ci ne nga jël génn taa gi idgaam ko ci daa gi mu jeex yéena ngay jàppalante alayhim ci seen kaw bil ismi ci bàkkaar wal udwi ak ak noonaan te way yaatukum bu leen ñëwalee usaara ku ñu jar mooy ku ñu jàpp ca xare ba tu faa duuhum ngeen jot ko mooy ngeen joxe xaalis pour nu bàyyi ko tere woon naa ko te waxoo moom luy mbir tey mbir daal génne googu walla luy mbir tey mbir wala luy kisa tey kisa muharramun lu ñu xaraamaloon la aleykum ci yéen ixraajuhum génne googu ma waxoon ngeen di jàppalante ci diggante korosita xaw ma ci diggante aws ak xas rek kii far fii kii far fii ngeen jàkkaarloo di xeex ah loolu yàlla da kaa tere woon na bu mu am seen diggante waaye yéen ngeen ës rek ëggëre rek taxaw fi ngeen taxaw loolu jaaduwul tabarakallah sunu borom ne nag afa tuminuuna ndax da ngeen diggam bi baadil kitaabi lenn ci téere bi wa takfuruuna ngeen di ama fit weddi bi baadin ca lenn la ndax alquran moom bu fekkee da nga jëfandikoo lenn li bàyyi lenn li yaa ngi ñii dong bàyyi bokk atte yaa ngi ñoom dong bokk atte kay ate bu dëppoog sa bakkan nga jël bu dëppoog ak sa nga bàyyi afa tuminuuna bi baadil kitaabi wa takfuruuna bi baad waaw bàyyi rey gi bàyyi génn gi di jàppalante ci je des ma koog fa maa jazaa'u man dara nekkul fay koo xam ne yafaalu day jëfandikoo zalika jëfandikoo lenn ci séer bi bàyyi lenn minkum ci yéen nekkul ak payam illaa gisun du gàcce ak échec bu rëy rëy illa risin gis nga baat bi ni mu ko nakkirelee daala nekkul ak fayam daal lu dul gàcce gu rëy rëy gu toll ni innama hmm? fil xayaati ci dund àdduna bu jege jeex bi tabarakallahu munu fee ñàkka torox munu fee ñàkka am gàcce te wa yawmal qiyaamati bu yawmal qiyaamee ñoom ñu doon jëfandikoo lenn ci téere bi bàyyi lenn bi yu daa ñu leen delloo wàññiwaat leen ila asaddil adabi jëme leen ci gën jaa garaawi mbugal gën tari mbugal ci lañ leen jëme wama allahu déet yàlla bi gaafilin muy aji yëgadi amma yaa aman ci li ñuy jëfandikoo liñ fi nekk di nga jëfandikoo ah sunu borom lépp lu yëg sàgganewu ci dara dara dara dara yow nit nag mën nga dem ba yaakaar ne sunu borom daal bàyyeetul xel adduna mi su bu fekkee sa pas-pas baaxul waaye wa ma allahu bi gaafilin amma yaamaluun ah. ma ngoog nee na ulaayka yole gaay alladina mooy ñi nga xam ne ñi mel nii nga xam ne dañuy jëfandikoo lenn bàyyi leen ngir seen mbir bopp kese kese kese istaraw jënde nañu alxayaata dund aduna bu jegee jeex bi ñu remplacé ak alaxira gënal aduna ci alaxira te man ba anuuran bi du jaa fa sa yan dama la sëñ Tuubaa waxoon ma ko te nag ëllëg falaa yuxaffafu deefu leen woyofal anhum ci ñoom alazaabu de mbugali nañ ko waroon a yombalee ci ñoom du yomb ci ñoom wala hum déet ñoom yundaru nañu leen di jàppale ak a dimbale naan yàlla bàyyi ñi samay gaay lañu dañoo juum ak xamee wuñ ko woon néeg ah déedéet intervention yi fii yam wala hum yunzarun tabarakallahu mu ñëwaat ci wane ne gannaaw yent yàlla Moussa ba mu jàlle am na fi yeneen i yenent yoo xam ne jaar nañu fi jaar ga ñu fi jaar nag am na noo xam ne noonu la seen mbir demee wala qad aataynaa joxoon nañu Moussa yent yàlla Moussa alkitaaba tawraat ñoo ko ko joxoon de pour mu jëfandikoo ko nee na ñoo ko joxoon fay xafaynaa toftal nañu min baadihi gannaaw départ gu yenti yàlla Moussa mooy gannaaw ba mu fi jigee indiwaat nañ fi bi rusul ci ay yenent ci ay yenent bi rusul ci ay yenent yoo xam ne yu bëree bëri la bu la yitteelee boo demee ci téere yi yenent ya fa jaar benn bu ci ne indi nañ ko tënku woon ci sariyaatu yent yàlla Moussa waa tey naa joxoon nañu ba tey Isa na Maryam Isa mooy ku ñu barkeel ci misaal tabarakallah Maryam nag mooy tekki jaamab yàlla waaye yent yàlla Isa daal nee na joxoon nañu ko di Isa nu Maryam ñun yàlla ñoo ko joxoon albayinaat ay aay leer nañ ñun ñi ñoo ko joxoon mooy lan ay mu'jiza fekk ko dee mu dekkal ko fekk koo xam ne dafa judduwaale a gumba mu xoolal ko fekk koo xam ne dafa yor jàngoroy ko jor wala ndoxam siti wala feebaru ngaana mu wéral ko ca tàng-tàng ba ndax moom ñaka yàlla boole woon ak jamonoy médecine lañ doon dund nit nag soo koy jommal da koy jommal ci la mu yaakaar ne moo ko gënoon a nga wan ko ci lu mu xamul wala lu mu comprendre wul wa ayyadnaahu dëgër nañu yent yàlla isa bi ruuxil qudusi ca jibril mooy ruux gu ñu gi bi ruuxul qudus ci jibril alayhi salaam ruuxul qudus nag tur ci turi jibril moom nga déggoo xasaan ibnu saabit doon wax naan wa jibrilu aminullahi fiina wa ruuxul qudus laysa bihi xafaa'u kenn mësul dégg loolu moom loolu la waxoon tabarakallahu nee na waxal laajal ma leen ñoom afa kullama jaakum ndax bépp bu leen ñëwalee rek rasulun am ndaw mu dikkal leen ndax saa bu leen ab yenent ñëwalee mbaa ustaas mba nit yàlla dikkal leen mu indil leen bi maa ci atte boo xam ne laa waa sopp ko bëggu ko neexul anfusakum seen bopp rek ci dëgg rek istakbartu ah yéen ni ngeen bëgg nekke nekkee saa boo xamee ne atte yi daal te atte bi neexul rek ngeen rëy rëy ñu ngi ko di jaay ne nii laa day ak nii laa toll noonu ngeen bëgg a doxee noonu ngeen bëgg dox nag. loolu nag bëri senegal Sénégal bii gis nit ñoo xam ne tabaarakallah saa bu atte bi ñëwee daal neexu leen rek ñu ne tabaarakallah ñoom daal aay ji waxul leen waaye yéen a soxor waaye yàlla daal soxorul ñii ki ngaaka wax waxi gulaagul ba génn ca istakbartum nee fa bari xan xool rek ñun dawalee mafaol mi mafaol mi kat lu mu dawal ko bari door di indi faayil ji loolu xam nga ne pour sawarloo sa saami la ki lay déglu yàlla daf ci waxe façon balaaxa boobu day waxee noonu nit pour kuy déglu gën a sawaraat gën a sopp li muy déglu waaw loolu danay tax ñu dawal ma fon dool di mujjee fi alja batte yooyu kay jàng ko ba tey moo tax mu ne fa fariqan ab parti ci yéen kazabtum weddi woon ngeen ko demee ni yént yàlla isa ah weddi woon ngeen ko waaye wa fariqan ab parti itam taxtuluun gisuloo xam nga mu daar yoola te ba ko njëkk maadi la waaye mu wàcce ko wàcc waayu maadi ngir lan wala mu uh, mu daa mu uh, mu wàcce ko wàcc waayu maadi ngir lan garawaayu mbir mi ak taraayu mbir mi ak ñàngaayu mbir mi tax nga gën a moytu xam nga contact lu ak am na ci parti boo xam ne ci yeneen yi na ngeen weddee ñenn ña ñenn ñi dangeen ngeen leen a rey kon jaaduwul dégg nga waqaalu wax nañu ñoom ñëwee di yenenti ya wax nañu yenenti bi waaye wax ga nag waxu yëjji ak waxi ñaawalaateeg mokke la ak waxi mbalak comme niñ koy waxee ci jamono waaw ak waxi kaañoo ñu ne yenenti bi daal ñun lay lay xamal daal mooy qulubuna sunu xol yii xulfun aji muuru la mooy mënul dégg wax ba jàpp ko jàppinu mokkal mbaa wax ju koy jariñ ñun moom seen xol yi moom tabaarakallaahu mënul loolu xulf dafa muuru sunu borom ne ah, balaa seen xol yi muuruwul yàlla yàq déggeekaay ya connexion bi ci boppam wifi bi donné bi la yàlla fay bal li fi nekk mooy laanahumullah yàlla soril na leen yërmandeem mooy yàlla jéppi na leen lool te la waral jéppi gi mooy bi kufrihim ci seen sababu weddi googu nga xam ne moom la ñu weddi ci la yàlla jaar nag pour jéppi leen wala defanteeg ñoom li mu bëgg a defanteeg ñoom tabarakallah fa xalila lu tuuti maa lool yuminuuna ñooy gëm lu néew lool nga ci fekk ñu gëm ci yahut ak nasaraan nee na wala maa jaawu ba nga xamee ne ñëwal na leen kitaabun ab téere min indillah bu bàyyi koo fi yàlla musaddiqon mbir ma mu yaay ji dëggal li ma maahum la ànd ñoom te mooy alquran ba mu ñëwee di dëggal ne tawraat li wax noonu la injiil lu wax noonu la ah ba mu leen dikkalee au lieu que ñu xam ne lii la waaye dañ faa jaar gën mën a weddi dégloo wakaanu nekkoon nañu fekk na la waral noonu la mooy yahut ak nasaraan saa bu arab yi daan duma bokk na ci lañ daan tiitaroo léegi yonent bu aaxiru zamaan dikk ndax dañu jàngoon ne yenent bi agar samaan bu ñëwee dana ànd ak ñi ko gëm xeex ak ñi ko gëmul ñoom seen gisaane nek seen i gis-gis ak seen i njàngat da leen ndax ndax dañu jàppoon ne bu ñëwee ci ñoom yahud yi lay bokk ci bani israil lay bokk waaye far mu ñëw génn ci arab ya loolu nag dañ ko daan tiitalee arab yi naan ñun daal bu yenent bi agar samaan ñëwee dana ànd ak ñun ñu jàpp leen dóor leen ba ngeen mel ne ay panket wakaanu nekkoon nañu ñoom yahud yi min qablu la dëkk la jëkk dikkuk sayduna muhammad yastaftixuuna daan sàkkoo dimbalikoo seeni ndimbal ala alladina kafaru ci kaw gaa yi nga xam ne ñoo weddi yàlla ñoo daan wax naan allahuma anzurna alayhim bi nabiyil mabxuus yow yàlla yàlla nag ñu dimbale ci ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla ci yenente bi ngay mujje yónni ci axiru zaman ñoom ñu daan wax ni waaye falamma jaahum ba mu leen ñëwalee ma arafu la nga xam ne xamoon nañ ko ci mandarga yenent bi ci ay critères ñu jàngoon ko ci tawraat ak injiil xoola kafaru bi ñu weddi ko ba jaaxaan na noonu ngir lan yaakaar ne suñu toppee yenent bi seen daraja day wàññeeku seen martaba seen garaat ah rek suñu borom ne fa laanatullahi alal kafirin xoola rek mu jël ismu ko wàcc waayu damir fa laanatullahi alayhim mu ne fa laanatullahi alal loolu koy ñi jàng loolu xam nañ li wax loolu dagan kon fa laanatullahi rëbbum yàlla alal kaafiriin yàlla nekk ci kaw ñi nga xam ne dañu weddi seen borom subhanahu wa taala ne fala ma jaa am moom leen ñëwalee ma arafu la nga xam ne xamoon nañ ko kafaru bii ñu weddi ko ngir rek iñaan fa laanatullahi alal kaafiriin bii sama saraw aka bon li nga xam ne jaayee nañu ko wala jënd nañu ko bii ci loolu anfusahum seen bopp an yakfuru ci weddi goo xam ne weddi nañ ko bi ma anzalallah ci li yàlla wàccee ci alquran lu tax ñu weddi ko mooy baxeen ngir ak mbewte rek ak ak iñaan ak ak iñetiku goo xam ne dugg na leen an yunazila ba wàcceef allahu yàlla min fadli ci mbaaxam ala man yasha ci ku ko neex li leen dérange daal mooy yàlla wàcce gi mu jël mbiram wàcce ci ku ko neex te mooy ak risalaam seet kenn ci mbooloo mi jël ko teg ka ca kaw loolu daal neexul leen hmm? min ibaad yi ci ay jaamam tax na fa baa u wàññiku nañu dellu nañu bi xadabin ci am mer bu bàyyi koo ci yàlla mu rëy rëy nag ala xadabin ci kawam mer mooy sànq goo xam ne tabaarakallaahu sànq nañ ko tawraat ak weddi goo xam ne weddi nañ ko yënt yàlla isa ak weddi goo xam ne weddi nañ ko sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wasallam sunu borom nee na walil kaafiriin ñeel na ñi nga xam ne ñoo weddi sunu borom azabun ay duma muhiinun yu leen di doyadal ay duma koy di doyadal xam nga bu ko wéree ci duma yi kay nga xam ne kooku kay tabarakallah jàng lool saaru majaaz la rek ne way daa qiila bu fekkee waxeef na lahum ñeel leen aminu gëm leen bima anzala allah ci li yàlla wàccee ci alquran ji xaalu ñu ne nu'minu daañu gëm bi ma unzila alayna lii ñu wàcc ci ñun te mooy tawraat ñun daal tawraat dong la nangoo gëm leneen lu dul tawraat mënuñ ci wax yàlla na ñoom waaw yakfuruna mbir moom ña ngay weddi bi ma waraa lépp euh, gis nga waraa nag dafa ci addaat yi waaw day fekki kanam tekki ginnaaw tekki lu dul moom bi ma waraa lu dul tawraat rek wala lu ñëw ci gannaaw tawraat wala ci kalimu tawraat yëpp dañu ko weddi uh-huh. yeneen téere yi ko fi jiitu woon gëmuñu ko ah kon lu dul tawraat rek dañu ko weddi teg ko fële te waxoo moom loolu ñuy weddi kat alxaqu mooy dëgg musaddiqan mbir moom mooy aji dëggal moom alquran jile lima maahum la nekk fa ñoom dañ ko daan jëfandikoo mooy tawraat alquran dafa ñëw gënal dëggal tawraat waaye ñëwul pour weddi tawraat dégg nga kul waxal ne leen bu fekkee ñoom li ñuy wax dëgg la ne ñoom gëm nañu tawraat dëgg dëgg dëgg seen wax ji am na contradiction naka ngay waxee ne gëm nga téere bi wala téere bi tere yëpp nga di def kon kay la nga wax du dëgg am na lu ci nekkul dëgg dégg nga waaw yéen bu fekkee li ngeen wax gëm ngeen ko fa lima taqtuluuna lu tax ngeen am fitu rendi ambiya allah yonent yàlla yi min qablu la jiitu alquran di dikk in kuntum uminin ndegem wax ngeen dëgg te loolu dañ leen ko faa tere woon moo xew ñu ne yàcc nag na mbur mu ngeet fal te wala xat jaakum dëgg-dëgg ñëwaloo ne leen Moussa bil bayyinaati ànd ak preuve yu leer naññ inondation baag daañu ko jàng ci kanam njéeréer yaag teeñ yaag ah mbott yaag deret jaag ati bekkoor yaagee ci tegu yëpp mooy di yëpp day dugg ci bil bayinaati su ma taqastum topp ngeen mujji jàpp ala ajla yëkk wa def ko yàlla min baadihi gannaaw demuk yent yàlla Moussa jëm ci rendez-vous ba gannaaw ba yent yàlla Moussa demee ci rendez-vous bu mu sekkoon ak boromam yéen gis ngeen na ngeen doxalee xam ngeen ne jaarul yoon te waantum mbir moom yéen walimun way tooñ ngeen te li ngeen nekk ay tooñkat nag mooy jaamu lu dul yàlla teg mbir fu dul palaasam waxoon nañ la ko démb jeexalagul nag ndax saar yi moom foog mu bëri lu mu laaj yahud yi ndax madina la wàcc te madina moom booba yénant baa ngi door a placé la ca xew-xew ne fàttalikul idaa xas naa ba ñu jàppee misaaxakum seen kóllëre ga fasante ka ak ñoom wa rafaanaa yëkkati nañu fawqakum tuumale leen atuura xeer wi maanaa bañ leen joxeen tawraat na leen jëfandikoo ko dañoo bañ suñu borom dafa buddi wenn xeer wu rëy rëy toll ni kaay leen buddilee ko benn malaayka ne ko tiimale leen ñu jëfandikoo tawraat nga xupp leen mel ni nit rek sa njaboot nga nekk da nga yenu nangam mu ne di ko yenu ah nga jël ab yar naka farfoos da nga ko yenu xam nga bu gisee yar bi dana góor góorgóorlu yenu mbir ma noonu rek la demee waaw kay danga nga dem tool tool nga jël yaar da nga dem atelier wala doo dem jël atelier nga jël yaar da ngay gis automatiquement da koy def waaye xamoon na bu génnee kër ga ndax bu demee atelier ba def lu baax ak lu def lu baax loolu moo ci am ba yàlla yëkkatee xeer wi nag tiimale leen ko montagne mi ne leen ay cax xudu jël leen maa aataynaakum lii ñu leen jox te mooy tawraat bi quwwatin ci góorgóorloog farlu ay cax jël leen jëfandikoo jarul xaar wasma'u ten dégg te ngeen dégg lii ma wax nag déggu nangu waxuma déggu mu jaradu dégg noonu rek de nangu ok assamu la nga dégg waaje naan da waykat ba naan daawtu llaha xatta xiftu an la yakunu llahu yasmau ma aqulu nee na maa ngi nekk di ñaan yàlla di ñaan yàlla dem ba ma ragal ne sax yàlla de déggul sax li may wax mar Sénégal tolluñ ci martaba boobu ci jamono bi ci corona bi gars yi dafa sangu ñaan gu ne ñaan nanu ko nu ne ñaanee nañu ko waaye daal watul daañu wax way wii de daawatullaha xatta xiftu an laa yakunu laahu dégg nga yasmau ma aqulu dem ba yàlla sax mel ni euh, déggu li may wax qaalu sami'na ñu ne yent yàlla Moussa wala ñu ne sunu borom ñun daal dégg nañu sa wax ji mais nag dégg nañ ko mais waa say naa ñoo bañ sunu borom ne baax na wa jaxaseef na fi qulubihim ci seen xol ya al ijla bëgg jaamu yëkk kom ni ndox di jaxasoo ak naan li muy jaxasoog suukar nga xam ne bu xasee jaxasoog suukar kenn mënu kaa tàqale bu xasee jaxasoog soow kenn mënu kaa tàqale nee na bëgg jaamu yàlla noonu bëgg jaamu nag noonu lañ ko jaxasee ci seen xol yi moom nga déggoon waykat bi naan fa saxawtu anha baxda xubbin daaqilin ndax wal xubb yasrabuhu fuaadu daa in fuaadi daa in wala fuaadu ko daa in noonu la woy wata déeti ma wuri naa wulis ko gannaaw cofeel goo xam ne duggoon na ma waaye mbëggeel googu dafa jox sama xol ba mujj ci nekk jàngoro de dafa chronique waaye ñoom itam jaamu nag dafa chronique ci seen xol yi waaye la leen yóbbee ñu bëgg jaamu nag mu jaral leen lu ne ba mel ni ndox moo jaxase ak leneen bi kufrihim ci seen saabu weddi goo xam ne weddi nañ ko rek mu korni ci seen xol yi xul bi sama ak a bon ci la nga xam ne ya amurukum sant na leen imaanukum seen ngëm-ngëm bi ci loola ah yéen daal seen ngëm gi doon leen sant du gëmay santaane nag bi loolu kay xam nga ne ak gëm mënta santaane dara loolu kay xam nga ne suñ ci wéeree mbir mi xam nga nu muy demee hmm? xam nga ne ngëm mënul santaane mënul tere waaye lu tax ñu wéer ko ci nag nga xam ne min baabil majaaz rek mu jeex ñun kuntum ndegam nekk ngeen muminin di woy gëm yàlla comme ni ngeen ko waxee yahud nag saa bu ñu waxaantaan ak yenent bi la ñuy wax mooy yéen jullit ñu di dara ñun ñoo weddi Seydina Muhammad ñun ñoo yor affaire yi yàlla nag na leen yen comme yéen yéen a moom àllaaxira ci ni ngeen ko waxee ba séddale ba partagé ne yéen dong nga fay dugg keneen ku dul yéen du fa dugg léegi nag lenn laa bëgg bu fekkee ni ngeen waxee noonu la mébét leen dee ngeen xool ba xam xul hmm? waxal ne in kaana ndegam nekk lakum ñee leen addaaru kër ga aaxiru gay aji mujj te mooy aljanna xaalisatan mbir moom ngeen koy way jagoo indallahi fa yàlla min duuni naa si bàyyi nit ñi comme ni ngeen waxee ne aljana yéen dongo ko moom comme li xew Sénégal kër sëriñ gu ne na ñom dongo ñoom moom aljana waaw ñoom dong ñoo fa sañ dugg jël affaire yi partagé jox kilifa mu jeex sunu booram nag nee na bu fekkee noonu la tëddee fatamannawul mawta mébét leen dee wax leen dañoo bëgg dee rek in kuntum saadiqin da ngeen wax ngeen dëgg bu fekkee wax ngeen dëgg wax leen dañoo bëgg de dee ngeen xool ba xam bu ngeen koy wax di dee de dañ ko mébét ndax xam nañ la leen cay fekk hmm? xam nañu ko mébét dee nag la Sahl ibn Abdullah at-Tustari ti yàlla boobu moo wax ne dee moom kenn waru ko am mébét ku kenn du ko mébét lu dul ñett ñi rajulun jahilun bi ma baadal al mawt <laughs> koo xam ne dafa mel ni man nekk kutumba boo xam ne xamul fu muy teg tànkam nga xam ne xamul la ca gannaaw dee moom doo ngay bëgg a dee de wala koo xam ne dafa waru ci dogaru yàlla yi waaw jàpp ne daal lépp c'est fini c'est lépp leer na kooko de dina mébét dee wala koo xam ne ku bëgg yàlla lool la sopp ko lool ba bëgg a gaaw dajeeg moom kooku moom dana mébét dee nee na ñett ñi di dañuy mébét dee moom kon kenn ku ne tolluwaay la ci ñooñ sunu borom ne walan yatamannawhu duñu ko mës a mébét walan duñu ko mës a mébét abadan ba faw seen xel daju ko ah lu tax duñ bëgg a dee comme nee ngeen mébét dee bi ma xaddamat ca la jiital na ko ay diihim seen ay loxo mooy seen ak weddi yàlla seen jëf ju bon jiital te dawal ko te xam ne lii jëf ju bon la moo tax tabaarakallaahu ñemewu ñoo wax ne bëgg nañoo dee wallahu yàlla alimun aji xam la bi zaalimiin ci tooñkat yi kenn rëccuma ci ñëpp laa xam te daañu lijjanti seen mbir nee wala tajidannahum ginnaa danga leen fekk ñoom yahut ak nasaraan wala ñi amul pas-pas bu dëgër ci seen digganteeg seen boroom ak seen jëf ju ñaaw axrasa naasi ñu gën a xéer ci nit ñi ala xayaatin ci guddu fan déggal li ala xayaatin ci gudd fan ci dundu gu yaatu yaatu yaatu yàgg lool daa nga leen fekk ñoom ñii wax ne dañoo gëm yàlla ñoom ñii wax na nga xam ne ñoo xam yàlla ñoom ñi nga xam ne ñooy dund yàlla ci niñ koy waxee ci làmmiñu nit ñi da nga leen fekk fuñ toll ñu ngay ñaan gudd fan lool rek la ñuy bëgg ñoo ko gën a bëgg sax min alladina asraku ci gaa yi nga Hmm? ñoo leen ko gën a nga xam ne yawaddu dana ngéeju sax seen bëgg gudd fan googu moo leen yóbde dana mébét ahaduhum kenn ci ñoom law yu ammar aka neexoon ñu dundal ko alfasanatin junni at aka neexoon mu dund junni at da nga gis koo xam daal dana aka neexoon yàlla guddal sama fan ba ma am junni at te lu tax muy bëgg gudd fan googu yëpp xam na ne jëfan ju woon jëlee su ko teewalee ci kanam borom bi ah dana leeral ba sonn de sunu borom ne wama huwa déet kenn ci ñoom ak lu fan wa gudd gudd téeméeri junni at la am miliyaari at la am du ko taxa mucc ci sawara bi mu zahrihi mu nekk mu nekk ku ñuy soril mu nekk ku ñuy soril minal adabi ca duma ya an yu amara bu ñu ko dundaloon loolu sax nag su ñu ko dundaloon loolu itam du tax it mu mën a mucc ca mbugal ma de bi mu zahzihi la waykat ba ne yaa qaabida ruuxi an jismin asa zamana wa gaafira dambi zahzihni an innaari benn waykat daf ne yow mi nga xam ne yaay ngëb ruu yi ruu yi nekk ci jëmm ji nga xam ne yàgg na laa mooy jamono bu yàgg lool yow mi nga xam ne yaay jéggale bàkkaar yi li ma lay ñaan daal mooy yàlla nag ñu soril sawara bi mu zahzihi an min al adaabi an yuammar wallaahu yàlla basirun aji xam la bi maa yaamaluun ci li ngeen fi nekk yëpp di ko jëfandikoo kooku ñuy wax Abdullah ibn Suriya dañu wax ne dafa mës dajeeg Seydina Omar ca seen biir waxtaan yahud ya xamal ne Seydina Omar ñun dañ leen a sopp lool Seydina Omar nag comme du naa fekk te lim dund lay wax ne man de man de yéen rek laa bañ li ngeen wax dara laa ci gëmul waaw ci biir waxtaan wa nag Abdullah ibn Suriya ne Seydina Omar waaw yéen wax yu gi kon moo ko wàcc ci yenent bi ka mooy indi affaire bi ci yenent bi seen waa ji comme ni ngeen ko waxee yi Seydina Omar ne ko kooku de Jibril alayhi salaam lañ kaa wax mu ne xiiw laalal bant kooku kenn duñ koy tudd suñu maam yi dañ ciy muslu ci moom kooku naqar wu suñu maam yi mës a am walla sunu baay yi dëkk bu fi mës a échec alku moxoñoo tasaaroo mooma xanaa bu yekkoon da nga ne miikaay du sax muy indi taw yi ak yi yooyu sax tane na waaye waa ji nga ma kooku nekkul ku ñuy fooye de waaye bàyyil xel ne jibril moom mooy tekki li muy tekki daal mooy jaamu yàlla lay tekki jibrilu jaamu yàlla lay tekki loolu lay tekki dégg nga <laughs> dafa saay saay rek xul waxal man wax leen ne leen comme nee na ñoom dañoo noonu jibril man kaane képp koo xam ne nekk na aduwan di noonu li jibril a ñeel jibril na dee nda waxam jooju du tax jibril di du tere jibril di indi message ci yenent bi fa innahu naka moom jibril nazzalahu wàccee na alquran ji ala qalbika ci sa waaye nag mi ngi ko defee bi iznillah ci nammeelu yàlla ci ndigalul yàlla la ko defe mu indi ko ci sa xol yow sallallahu alayhi wasallam pour jotal la ko comme ni nga xam ne noonu la sunu borom waxee nañ la ko jotalee noonu alquran nag musaddiqan muy mbir moom muy aji dëggal li maa bay ne day ñel li nga xam ne moo ko jiitu woon ci ay téere wa hudan ak mu nekk njub loo xam ne day gindiwaate ci jubadi wa busra ak mu nekk mbégte ci aljanna waaye alquran ñen la nekk ginde go xam ne da leen di gindi ak ñen lay nekk mbégte ci ñoom xanaa lil muminin yàlla nag dikk daal di leeral ne man kaane képp koo xam ne nekk na aduwan di noon lillaahi ñel yàlla wa malaikatihi ak i malaakaam wa rusulihi ak i yenantaam xanaa loolu doyoon ate boobu koy xam nga ko day nekk at xaas am xam nga mam naa wa malaikatihi jibril duggoon na foofu mikaayil duggoon na foofu waaye ñoo ngi nuyu ñëpp ah di beral cant nag ak ngërëm sëriñ diw wala son excellence diw loolu alquran balaaka boobu olof am na ko balaaka boobu olof am na ko mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu mbooloo mi yëpp dugg waaye nag diw nag mënuñ kaa ñàkk a beral ngërëm wala mënuñ kaa ñàkk a beral ak cant tudd ci ruwa ma ngoog alquran day waxee noonu wa jibril wa mikail fa inna laa naka moom yàlla moom yéen moom bu fekkee ñii rek ngeen noonu fa inna laa yàlla moom aduun lil noonu la ci yéeféer yi yëpp yëpp mu leer mbir mi nu leer te nag wala xad anzalna wàccee nañu ginnaane wàccee nañu ilayka ci yow sallallahu alayhi wa ayatin ay aya bayinaati yooyu way leer mooy lii ñu wàcc ci yow nga koy jàngale ñoo ko wàcc ci yow mu nekk lu leer naññ képp koo dégg mu di ko weddi ak di ko sonu saay-saay la wa maa yakfuru du weddi bihaa ci kéemaan yi du ko weddi mukk mukk mukk alquran du ko weddi illal faasiqun lu saay-saay si rek ñi nga xam ne dafa am ñu fi toogal wala ñu nekk ay saay-saay képp ñooy weddi alquran sañ ko taxawe nañu ko taxawe awa kullama ahadu ndax saa boo xamee ne kullërante nañu ak yàlla ahadan ak kullëree kom yu mel ni yéen jàngoon ca ginnaaw rekk nga gis nabasahu sànni kullëre ga fariqun ab parti minhum ca yéeféer ya wala minhum ca yahud ya euh, sànni ko ca gannaaw a gannaaw mel ni ku ci amul soxla la abul aswad doon wax ne nazarta ila unwanihi fa nabastahu <laughs> ka nafsika naalan axlaqat nialika na ko xool nga ba xool adresse bi tax nga sànni ko fële comme ni ngay sàlle dalli dalli kon da safari na la <laughs> kenn musul dégg loolu nabasahu sànni kóllëre ga wàcc ko fariqun minhum balaa li fi nekk mooy aksaruhum lu ëpp ci ñoom daal laa yuminuuna gëmuñu moo tax ñuy doxalee nii ñuy doxalee waaye wala maa jaawum ba mu leen ñëwalee rasulu ndaw min indilaa mu bàyyi ko fi yàlla di sayduna muhammad di yonent bu ponkal yéeme lool doy waar lool musaddiqun bi moom muy aji li lima maahum la ànd ak ñoom ca tawraat ak injil nabasa wàcc na sànni na fariqun ab parti min alladina ca gaa yi nga xam ne utul kitaaba joxeef na leen mooy ahlul kitaab di fóore ya sànni nañu kitaaballah téere bi yàlla ba wara azuhurim ci seen ginnaaw ginnaaw te mooy jëfandikoo wuñ ko téere nag bu fekkee demoo ba jëfandikoo ko sànni nga ko ci ginnaaw alquran mi buñ ko jëfandikoo sànni nga ko ci ginnaaw comme ñëpp niñ ko sànnee sànni alquran ci ginnaaw moo tax yi xew-xew buñ ko waxee ak buñ ko waxul yëpp mooy ñàkk jëfandikoo alquran moo tax yi ñuy dund jullit ñi di ko dund ñi nga xam ne ñi ngi dara ci yàlla di ci am naqar wàcc gi ñu wàcc alquran gannaawal ko moo tax lu ñu dal lu ne xamal ne loolu moo ñu ko yóbbee nam dalee woon yahud yi nag noonu la ñu dalee ka annahum mu mel ni ki ñoom laa yaalamuuna xamuñu dara dara dara ci alquran wala xamuñu dara dara dara ci njàngalam yenent bi tabarakallahu euh, booy xool nag tolloon nañ jamono jinne yi dañ daan nax nit ñi ba gëm leen lépp lu fi xeetu wilaaya wala lépp lu fi xeetu nubuwa wala lépp lu fi xeetu garaat buy aju ci yàlla loolu ak njabar mën na ko ba gëmloo nit ñi ne yént yàlla Suleymaan lu tax mu occupé woon nit ñi yilif leen ak njabar kepp la woon lii ñu lay bëgg a nettali nag daañu ko nettali waaye nga xam ne bu ñu ko nettalee pour yow mi nga xam ne dawalagoo sa bët lu sori pour nga ràññi koo ci ba boo déggee nen ku koy nettali te leerul mbir mi nga xam ne wérul loolu lañ jublu ci nettali gi nga xamee ko noonu waaye bul ne loo fekk ci tiir rek nga jàpp ne wér na déedéet tëddeewul noonu de li ñu la bëgg a nga jàppee ko noonu tabarakallahu dañuy wax ne yent yàlla Suleymaan benn bis dafa soxla woon boppam pour bëgg a dugg ci toilette bi dal di jël jaaro ba am kum ko jox ñu wax loolu benn soxna ci soxnaam yi la ko jox lañu wax dégg nga ko benn jinne bu ñuy wax saxar nee ñu mu soppeeku ba yor melakaanu yent yàlla Suleymaan ñëw ne soxna si dama bëgg nga jox ma jaaro bi soxna si jox ko jaaro bi jinne ji toog fa fauteuil kanaape ba yent yàlla Suleymaan daan toog mu toog ca commencé nag gis ne puwaar bi moom dafa sap soppiku rythme bi mu doon doxee ci kanaa ginnaaw ak rythme bi muy doxee léegi beneen coalition moo ci am léegi daal ci misaal daal nouvel ordre mondial moo ci xew ca booba la jamono yooyu yàgg na fi tappale yàgg na fi waaye ba lenn ci jinne yi demee ba xam ne kii du yënt yàlla Suleymaan ndax mbon geeg xeeti caay-caay geeg xeetu ndëngati gi bëri na fi ba jinne yi trouvé loolu saxar dafa jël jaaro ba sànni ko ca biir géej ñu wax ne ba yàlla delloosiwaat jaara bi ci loxol yent yàlla Suleymaan Suleymaan def na nañu wëri saxar ci gàttalu kisa ba ñu waree saxaru ba gis ko indi ko ca biir géej gi yent yàlla Suleymaan dugal keeg ci ay xeer gas ay xeer sotti ko ca dugal ko foofa waaw foofa sakk ko dootul mën a génnati am ñu wax loolu am ñu ne déedéet dafa am soxnaam boo xam ne baayam dañu ko jàppoon ca xare ya ba ñu ko jàppee ca xare ya mu am lu ko naqari lool di mante mante di mante mante ba ñu defaral ko benn nataal bu nuroog baayam mu teg ko ci kër gi di ko jaamu ba mat ñeen fukki fan yént yàlla Suleymaan yedd ko yàlla xaw a nangu pouvoir bi ci moom ñuy wax loolu am na ñu wax loolu bi ba lii amee nag waaye nii ma ko waxee nii nii nii nii noonu la wéedee ba fi yënt yàlla Suleymaan demee ba jugee ne jinne yilif adduna bi am ci diggante boo xam ne gëm nañ nit ñi gëm nañ leen ñu bëgg nit ñi topp leen ndax pouvoir la ñu bëgg comme ni ko nit ñi bëggee ñoo leen nag yënt yàlla Suleymaan lii la mu yilifoon nit ñi dafa am jaaro boo xam ne waaw nubuwa dana tënku ci jaaro wilaaya sax tënkuwul ci jaaro waxantuma la ak nubuwa hmm? ako gu risaala kon kay ñoom seen xel yi dafa dawul rek nii ma ko waxee noonu kon nga xam ne yooyu moom ay wax la yoo xam ne téere yi bind nañ ko rek lépp di ay israiliyaat pour boo ko gisee rek nga moytu ko xam ne yahud yi ñoo ko dugal pour bëgg ci yàq pas-pas yi jullit ñi ak fonta gi ñu daan fontoo yeneen yi rek comme ñoom xamul buñ bojj ak buñ boxam sunu borom nag dikk di nettali bëgg a xamal nit ñi ne lépp luñ leen wax ci yént yàlla Suleymaan na moo taxoon mu am pouvoir ak wilaya ak martaba nekk ci xeeti njabar rek la ko tënkoon loola dara du ci dëgg dara du ci dëgg njabar nag soo ko déggee mooy lu leerul nga xam ne day mel ni fajar soo xam ne ah fajar saa ngi jeex fajar saa ngi fenk guddi gaa ngi jeex ni muy lënd mel nga xam ne du lëlëm du leer noon la njabar mel dara du ci dëgg waaye nag saabu bu antoo rek yàlla la neex njabarkat nag moom mbiram leer na waaw kay moom fu ko sariya jàpp rek da kay rey mooy dañ koy rey nit it boo ko njabaroon ba ñoo xam ne yaa ko njabar ba rey ko fu la sariya jàppee dalay rey waaw fu la sariya jàppee dalay rey de te dafa bokk yit ci kaba yi ñu bàyyi ko bu baax a baax ci bàkkaar yu mag yi te juróom-ñaar yi yonent bi doon waxoon ne moytu leen juróom-ñaar yi alage daf cee boole woon loolu ñuy wax ak njabar kon ñu dawaale tuuti ci yax bi ne jinne yooyu wattabaaw topp nañ wala ñoom yahudi maa la nga xam ne ta lu jàngoon na ko ashayaatinu seytaane yi ala mulki Souleymane ci jamono yént yàlla Souleymane ne Souleymane moo leen jàngal lool te du dëgg wa maa kafara weddiwul mooy jëfandikoowul ak njabar Souleymane yént yàlla Souleymane walakin waaye kay ashayaatinu seytaane yi ñoom kafaru de weddi nañu bay jàngale njabar nit ñi it gëm ko di ko topp yuallimuna ña ngay jàngal annaasa nit ñi asihra ak njabar mooy ay naxe wa daañu jàngal nit ñi ba tey maa la nga xamee ne wàccee foon na ko alal malakayni wala alal malikayni waaw coow nag na foofu waaye li gën lëng mooy malaayika moom ah laa yaasuuna allaha ma amaruhu wa yafaluuna ma yumarun du mooy yàlla ña wax na alal malakayni la waral wax jooja mooy lii ñuy bëgg a wax dégg nga ko bu baax a baax suñ ci ñëwee da xam liñ bëgg a waxay lan mooy malaayka yi dañu wax ne benn bis daal dañoo toog di yéemu daal ci doomu aadama yi naka la leen yàlla mën a def leen lim leen defal ci xeetu teraanga ñu wëlbati ku ñàkk lu ñuy def teraanga jooju ole ko ñu delloo ko yàlla sante ko ko xanaa di ci mooy yàlla malaayka yi di yéemu ci loolu sunu borom na leen yéen de xanaa xamu leen nii ma bindee malaayika yi si ni ma leen bindee façon bi ma leen bindee ci xeeti bànneex ak bëgg-bëgg ak yooyu yëpp suma leen ko bindee woon wattuwul ngeen nekk fa ñu nekk wattuwul daa ngeen def ñoom yi ñuy def de malaayika yi ne subhanallah loolu ko wal iyaazu billah yàlla ci yàlla musal yow niñ la xamee ak niñ la fonkee niñ la bëggee niñ la nawlooy yàlla na tànn leen ñaar ñu ne ñu tànn haaruta ak maaruta yàlla defal leen ñu yor comme melokaani nit waaye bu ñu ñëwee nag liggéey bi leen seen borom sant mooy justice atte pour lan di atte nit ñi yàlla nag la su ngeen demee foofa lama tere woon nit ñi laa leen di tere mooy bu leen bokkaale yàlla bu leen rey nit bu leen njaaloo bu leen naan sàngara bu leen bu leen bu leen daal di jël lismu laal azam nag xamal leen ne saa boo xamee ne audience bi jeex na ngeen war a wàcc ah lismu laal azam boobu su ngeen ko tuddee da ngeen di mën a yéeg ci kaw asamaan del ci waat foofa ñu wax li ba benn jigéen daldi di joteeg borom këram ba mu joteeg borom këram mu ñëw fekk gaa yi ci salde de audience ndaw si nag ba muy ñëw ni ma la ko mën a waxee defar na maay këbam bu baax a baax. def zowam bu baax a baax def ay xefam monte ay weyam ñëw nag ba muy wax di lamsal ak per njaay waaw di lamsal ak per njaayu ndeke gaa yi moom ba ñu ko gisee rek la ñu tàggoog seen sago euh, ndaw si ni leen nag damaa jur ak sama jëkkër waaye nag xam naa ne maa tooñ lenn rek laa bëgg mooy damaa bëgg daal ngeen jox ma dëgg gaa yi nag ah waaw yow de wax dëgg yàlla boo bëggee leneen lu dul dëgg it boo bëggee ñu jox la ko de ndax nii nga mel nii moom neexoo deret fi nekk nii moom yaay def buzz ah déggal ma lii lii la ñu wax ah ñu mant mante comme li xew ci tribunal yi rek am dëgg gisante gaa yi ci suuf ñu jël sa dëgg sànni fële waaw jox la tappale looloo fi nekk ñu ñëw bëlëf bëlëfee jëkkëri ndaw si faxa ba dàq ko wane naka yaa tooñ ndaw si ndaw si ne d'accord waaw léegi moom comme ma kom euh, jox ngeen mën dëgg nag léegi xanaa mën naa yeewiku gaa yi ne ko déet yeewiku koy day teel yow liñ daj ci sin atte bi audience bi li ñu ciy daj waxuma rek waaye fen giñ fen loolu rek dafa ëpp doy na bàkkaar te yàlla tere woon nañu ko mu ne leen nag waaw li ngeen de bëgg de mën naa leen kaa defal waaye sama gone gii ma ànd ak de moom a xaw a jaaxal mu ne ah gone gi kay mën nañ kaa sàkkal pexe xanaa ngeen rey ñu ne ko rey laalal bant ray nit dina gares xalaatuñ ko koy mu ne kon boog ngeen sujjootal xiram bale ñu ne ko sujjootal xiram lii yëpp yàlla tere woon nañu ko di mu ne ah léegi nag kon bitidu sàngara baa ngi nee ngeen naan ci tuuti su ko defee li ngeen bëgg ma defal leen ko dégg nga ko bu baax ñu ne ah waa xanaa ñu xool sàngara si dafa mel ni tane na tuuti de waaye tane ak wolof de daal di mos kenn ku ne guux te fekk na dañoo fàtte ne booba mooy moom boo ko xasee sànjaafu lu ne sañ nga ko dootoo yëgati li xew ndax tàggoo nga ak sa sago lañ fa su jëtalee xëram ba rendi gone ga ndaw si ne leen nag léegi leen des mooy yéen dëkk bi yëpp a ngi leen di coow fu ngeen di fanaan guddi gi gars yi ne ko ah ñun nag ay malaayka la ñu di ko wax ndànk nag mu ne ko waaw ay malaayka ngeen nu ngeen di def ba yéeg la di yéegee secret bi élancer bi laa bëgg a xam ah gars ne ko loolu du yomb de mu ne su ngeen bëggee ma defal leen li ngeen bëgg nag da ma koy wax muy manti manti xam nga jigéen rek inna kaydakunna azimun moo gaaya moo gaaye moo gaaye ba gaa yi wax ko ne ñun nangam la ñuy wax pour dem ci kaw asamaan ndaw sa wax ko yéeg ñoom ñi des fa ba léegi am na ñu ne ñu ngi leen di mbugal euh, ba léegi fañ leen juutal di leen mbugal ñu tiim sawara ñu ngi tiim ndox maanaam juutal leen di leen mbugal du ñu bëgg a ñu ngi bëgg a yóotu ndox mi te ba léegi dagagul te ba léegi dagagul ba yowmal qiyaama nag ba yowmal qiyaama di leen fa mbugal mbugal yu métti métti ñu mar lool di jàkkaarloo ndox te duñ ci mën a naan. waaye daal xisa bi noonu ma ko waxee ne ay malaayka lañ noonu lañ ko dàqee ne malaayka du mooy yàlla comme ni nga xamee ne ay ma yenent yi ay maasum lañu noonu la malaayka yi nekkee ay maasum kon loolu lañ la ci wax nga xam ne daal soo ko déggee ku koy nettali nga jàppee ne lii moom am na ak wér di ci am am ñu jàngaale malaayka yi ne ci ñaari buur ya tabaarakallahu dégg nga moo tax mu wa daañu leen jàngal maa undila alal malikayni bi baabil la ci ñu nekkoon ci dëkk boobu ñuy wax baabil benn dëkk la ca Iraq ca boori Kuufa boor boobu la nekkoon mooy Haaruuta ak Maaruuta ñaar ñooñu la woon wa maa yuallimaani duñ jàngal min ahadin kenn amul kenn lu kuy ñoom kuy ñëw ci ñoom di jël ay leçon lu dul daañu la wax lii ñuy bëgg a wax lu dul daañu wax lii ñuy bëgg a wax xataa yaqula lu dul daañu la wax wax goo xam ne waxuñu laay biir na wax dañuy bañ la leen dal dal la innama nahnu duma lu dul ñun fitnatun natt lañu bu bàyyi koo ci yàlla pour rek ñëw jàngal nit ñi naka la falaa takfur bul weddi yow mi bëgg a jàngal xam-xam bi su ko defee kewe da ngaa wala gëmuloo yàlla wala yàkkamti mën na laa dugal ci xam-xame tappale yi de fa yataallamuun daañu jàng ñoom nit ñi minhuma ci ñoom ñaar ñooñu maa xam-xam yoo xam ne yu farriquuna daañu mën a bi bihi ca xam-xam ba baynal mar'i diggante waay wa zawji ak soxnaam di wax wax joo xam ne wala di jëf-jëf joo xam ne diggante ñaari way dencante yi mën nañoo fexe ba dëddale wala ñaar ñuy ànd ku ne kon nga xam nañ loolu yàgg na fi affaire dëddale yàgg na fi waaw waaw baynal mar'i wa zawjihi yàlla tudd ci boobu bëgg na mu leer waaye du loolu dong la njabar mën njabar nag li mu mën bëri na sunu borom da cee leeral boobu rak pour ñu bëgg a xam ne njabar daal na mi yàqee la noonu lay yàqee wax naa la ku njabar nit ba mu dee bu ko sariya xamee dañ lay rey ca tàng-tàng ba te njabarkat dafa weddi yàlla comme dafa weddi yàlla nag foo fa yaa fekk amul tuub la dañ koy rey mu jeex waaye nee na wamaahum déet ñoom njabar googu ñuy jàngal nit ñi bi door yi na muy aji mën a lor bi ci njabar googu min ahadin kenn illa bi iznillah kon ñoom baat yu ñu mën di wax yu ñu mën di jàng ak nuñ ko mën di làkkee nuñ ko mën di jëfandikoo mu dal la jàppal ne ci nammeelu yàlla lay dalee ci sa kaw waaw kon nga déggee ci ne mbir mi moom mën nga sabablu waaye kay àggale mbir mi mooy sunu borom subhanahu wa taala moo koy tax a sotti waaye seeni pexeek seeni jongeek seeni nangam nangam du tax yëf yi sotti de déedéet dégg nga bu baax wa yataallamuuna nit ñi daañu jàng ca ñoom maa yadurruhum loo xam ne dinañ la lor ci àllaaxira ndax ëllëg boo ñëwee sa borom dina ko lijjanteeg yow te wala yanfa'uhum di leen jëriñ moom njabar googu ñuy jàng ci àllaaxira àllaaxira du leen jëriñ fii du leen jëriñ faa wala ka alimu giñ naa ne dëgg-dëgg daal xam nañu lamani saraaw ka nga xam ne jënd na àdduna jëndee ko àllaaxira wala waxu yàlla mu jëndee ko waxu iblis naka wóor ne maalahu déet muy am fil aaxira ci àllaaxira min xalaaqin benn cër bu mu fay am ci àllaaxira amul te wala bii sama aka bon ci la nga xam ne dégg nga maam euh, saraw jënd nañu wala jaay nañu bii ci loola anfusahum seen bopp law kaanu yaalamun ñu nekkoon di nga xam aka neexoon ñoo xam loolu wala waa annahum bu fekkoon ne ñoom amanu gëm nañu yeneen ci bi gëm alquran wa taxaw ñu moytandiku ak bokkaale yàlla ak njabar kon de bu boobaa la ma daañ leen fay ca loola bu fekkoon ne nangu nañ lii fay kon nañ leen suñu borom ne la ma suubatun yiw yool gin naa ne ab yool min indillahi bopp bàyyikoo na ci yàlla de xayru moo gën fuuf lii ñu jënde yàlla nga xam ne addunay kese la ay tappalay kese la daa ñu ko bàyyi euh, ñëw ci li yàlla wax law kaanu suñu nekkoon yaalamuuna di comprendre ne ad alaxira moo gën aduna waaye ñoom comprendre ñu loolu comprendre wuñu loolu dégg nga euh, jullit ñi bu ñëwaan ci yonent bi sallallahu alayhi salam dañ naan yonent bi xool ñu ndax ñu barkeelu ci yow xool gi ñuy xool dañuy barkeelu ci yow te loolu dafa am lu muy def ci ñun daan jëfandikoo baat boo xam ne nag baat bi mënees naa làqu ca baat booba pour wax leneen mënees naa làqu ci baat booba di bër xaale beneen baat boo xam ne ku xamul dëgg-dëgg doo ci mën a num tuddati yàlla nag xamal nit ñi ne leen léegi su ngeen dikkatee ci yenent bi bu leen waxati baat yi nga xam ne ñu dul jullit wala ñi nga xam ne ay saay-saay lañu mën nañoo làqu ci baat boobu di bërxal de jaaduwul moo tax mu ne yaa ayyuha amanu yéen ñi gëm yàlla laa taqulu bis ni ki tey bu leen waxati raaina mooy xool ñu wala sàmmuñu butu yërmande ñoom dañ ci daan bërëx ñoom yahut ak nasaraan naan roxuna suñ dikkee ne roxuna suñ bi waaw suñu yow mi nga xam ne yaa yëgul li xew roxuna yàlla nag ne léegi waxulu wax leen ne unzuru unzurna xool xoolal jëme ci ñun yàlla ne remplacé leen baat boobu baat bii ma leen di wax nag moom baat la boo xam ne ñoom mënuñ ci jaar di làkku di def la ñuy bëgg a def la ko waykat ba ne fa innakuma an tanduraani saatan min ad-dahri tanfauni lada ummi jundubi ma ngoog xool leen ñu wasmau ngeen déglu nag déglu lu mu leen di digal ngeen def ko yeen jullit ñi wali kaafirina yel neefeer yi ay duma alimun yu méttee métti e maa yawaddu du ngeeju alladina gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañ mooy bëggul ñi nga xam ne dañoo weddi ci àllu kitaab wala musrikin du caagane ñi nga xam ne ay musrik lañ ay bokkaalekat yàlla lañu bëgguñu an yu nazala wàcceef aleykum ci yéen min xayrin ci benn yiw ñoom daal bëgguñ yàlla wàcce ci yéen ab yénant bëgguñ yàlla wàcce dara ci yéen bépp xeetu teraanga daal xoola ñu dul jullit tey ni ñu ko ñaanee jullit ñi di jéem a yàq seen pas-pas jéem a yàq seen diine jéem ko teel lii rek la maa yawaddu alladina kafaru lil kitaabi te mooy franc mason yi ak droit de l'homme yeeg yu ni mel wala musrikin an yunazzala alaykum min xayrin laa wax nag min rabbikum bopp tukkee na ci seen borom lu tax ngir rek iñaan goo xam ne iñetiku goo xam ne dugg na leen rek te iñaan moom jëru ko fii Sufyaan ibn Sawri doon wax ne iñaan moom lu tax du ko def mooy nit moom ñaari place rek la am benn muy nitu aljanna wala muy nitu sawara buy nitu aljanna su ko iñaane di ko tere dugg aljanna kon jarul iñaane buy nitu sawara it bu ko iñaane ko tere dugg sawara kon lu jarul iñaane hmm? xam nga bu ko nit ñëpp déggee woon noonu yëf yi yomb waaye nit ñi dañ caa déggeewul noonu wallaahu yàlla yaxtasu mooy jagleel bi rahmati ci yërmaande mooy nubuwaam ak risalaam ak wilaayam ak i may moo koy jagleel di ko jox man yasaaw ko ko neex sa jullit ñi neex nañu ko wallahu yàlla zul li mooy borom mu ngëneel al azim bay aji màgg kuffaar yi mooy yéeféer yi ñu ne ñu daal yenent bi jaaxal nañu léeg-léeg daal mu wax ab wax ba mu yàgg jugewaat ca wax ba mu digle ne gars yi bàyyi leen ko defaat leen bii mbaaru waa ji day làmbatu yee dafa mel ni fi mu teg tànkam baaxul de alquran nag dikk di wax ca loola ne mbir mi moom man yàlla la maay indi lii ba neex ma ma jëlee ko fi indiwaat leneen waaye du ñoom sunu borom ne maanaam sax lépp nu folli wala lépp loo xam ne digal nañ la nga folli ko mooy folli nag soo ko déggee mooy lee fi nekkoon nga jëlee fi indi leneen dafa am ci façon nag léeg-léeg mu amee ci baat bi kese léeg-léeg mu amee ci atte bi léeg-léeg mu amee ci ñoom ñaar léeg-léeg nga gis ni atte bi dafay dañ aaye ji dañ xaw nga booy jàngal Alxuraan mu njëkk ba la ci nekkoon mooy na ah, nampaalo mën bala moo xaraam foog mu namp fukki yoon loolu dafa mujj dañ yax ba dañ na fukki ya dañ na léegi benn rek bu wér léeg-léeg ñu folli aaya ji atte ji des fa xam nga njaalookat bu jigéen bu góor bu ñu njaaloo na ngeen leen jam ba ñu dee loolu gisatoo ko ci alquran te atte baa ngi dox ba léegi léeg-léeg ñu folle atte ba bàyyi fa baadiya fi yàlla naan saa bu dee teewale kenn ci yéen mu joxe ndénkaane ka mu dénk ne nañ ko jox nangam nañu ko jox nangam xam nga loolu la alquran wàcce woon te booy xool gis ci aaya waaye la ko dindi mooy la wasiyata li waarisin képp koo xam ne da ngaa bokk ci miraas mi suñ dénkaane da nga am nangam doo am nangam foofu da ngay gis ne aaya ji moom tabaarakallaahu folli wuñ ko waaye atte bi moom folli nañu ko loolu da ngay gis ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen comme na nga ko jàngee woon ci sa usul ba rek noonu rek la faa demee moo tax mu ne lépp luñ folli min luñ folli min aayatin ci benn aaya wala benn atte aw nan saha wala ñu yeexe ko wala nun siha wala ñu yeexe ko ak dikkam xamal ne naati daañu indi bi xayrin ci beneen aaya boo xam ne moo gën fuuf ëpp njariñ gën a bëri yool gën a yomb min haa ca aaya ba fi jiitu woon bii ñu koy remplacer daal mooy gën a neex a jëfandikoo ëpp tiyaaba aw misliha wala bu tolloog moom ci coona tolloog moom ci yool alam taalam xanaa xamuloo anna allaha naka yàlla xadirun ku mën la ala kulli seen ci lu ne lu yàlla mën na ko kon nag loolu waruñu jaaxal alam taalam xanaa xamuloo anna allaha naka yàlla lahu ñeel la ko mulku samawaati moomeelu ko asamaan si wala ardi ak suuf dégloo yàlla moom moom asamaan ak moom moom suuf waaye terewul li moom asamaan moom suuf am na ci loo xam ne dañ la kaa moomale yow nit waaye am na ci loo xam ne moomale wul ko la yow nit lam la ci moomale yow nit soo fi jugee am na ñu taxaw ne sañ nañ kaa doon waaye lam la ci moomalewul soo ko fi defaroon it soo fi jugee doo doon te mooy wa annal masaajida lillah hmm? kon yooyu mat nay bàyyi xel yàllaa moom fépp waaye am na lum ci moomale nit ne nit kat yaa moom lii nit soo ko su ma jugee war a doon ne maa moom lii waaye am na lum la moomale loo xam ne boo fi jugee it kenn du taxaw ne maak moom loolu mat naa ràññee trop wa maalakum amu leen min dunillahi kudul yàlla min walin kenn ku leen di garde ku leen di méngoo wala nasir du caagan kenn ku leen di dimbale bu yàlla na mecc yéen musiba amul de am turiduna wala ndax yéen da ngeen a bëgg yéen jullit ñi an tasalu ngeen laaj rasulakum seen ndaw lii di sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wasallam kama su ila comme la laajee foon na ko Moussa ah lañ laajoon yonent yàlla Moussa ngeen bëgg a laaj seen yonent bi min qablu la jiitu la mooy arina allaha jahratan ah démb ñoom waxoon nañu yàlla ji lañ bëgg gis ci jàkkaarloo waaye jigu mu ne wa man yatabaddali képp ku remplacer al ak weddi bil imaani ak ngëm yàlla képp koo xam ne daal weddi yàlla moom nga jël remplacer ko ngëm yàlla ak koo mën di doon fa xad dalla kooku de sànku na sawa sabili digg yoon wi mooy na ko jaar na feneen foo xam ne du yoon wi te ba tuul résultat ba du baax ci moom nee na wadda ngeeju na bëgg na kasirun lu bëree bëri min alil kitaab bëri na ñi nga xam ne ñooy franc-maçon yi wala ñi nga xam ne ñooy lobby góor jigéen yi wala ñi nga xam ne ñooy droit de l'homme yi bëgg nañu law yaru duunakum aka neexoon ñu wàññiwaat leen delloolee leen ku faaran mbir moom ngeen di way weddi yàlla di def góor jigéen di def franc-maçon xasalan ngir rek iñaan kese kese min baadi kum gannaaw ba ngeen gëmee jaral leneen lu la nag façon bu ne daa ñu ko fa jaare jéem ko faa def système bu ñu ko mën a jaaree pour ba ngeen weddi yàlla ba mel ni ñoom daañu fa jaar te système yooyu yëpp ñun ñëpp gis nañ ñu ñuy dundee système yooyu ma ngo kufaaran xasadan min indi anfusikum ci iñaana goo xam ne ak iñettiku goo xam ne mu ngi tukkee ci ñoom ci seen bopp loolu nag ñu ngi koy jéem a def min baadi ma tabayyana gannaaw ba leeree lahum ñeen leen alxaqu dëgg ba ñu leeree na yenant bi rek mooy yenant bu wér ndax yi ku dégg Donald Trump da nga gis muy wax ne yenant bi moom quarantaine yi ñuy def ak couvre-feu yi ñuy def ak confinement bi ñuy def yëpp yenant bi jàngale woon na ko di wax ne mooy docteur yi docteur yi ci mbas yi bu xewee nangam ak nangam kon ñoom xam nañ lan mooy dëgg iñaane jullit ñi rek ak soxore leen lépp loo gis ñu koy diggal ci wàllu dégg nga maam corona bii fekkoon na séria digaloon nañu ko bu yàgg yàgg ñu mel ni man na nga xam ne yitte wuñ ko woon jànguñ ko woon ah, ku gëmul yàlla wax leen ko wala ab ab ab ab scientifique wax leen ko moom la ñuy gën a topp bu leen ko ab sëriñ waxee wala buleen ko ab yonent waxee wala bu leen ko ab nit yàlla waxee dañuy jàpp ne rek wax ji moom noonu rek la ta fekkee tëddeewul noona kon nga xam na ñoom dañu ko xam comme ni ko ñi xamee sunu borom ne faafu bàyyi leen leen wasfahu ngeen dummoyu leen xataa yaatee dem ba ñëw xataa yaatee dem ba ñëw am allahu yàlla dem ba indi bi amri ci ay mbiram inna allaha naka yàlla dirum ko am kattan la ala kulli seen ci lu ne waaqimu salaa na ngeen taxawal julli waatu zaka na ngeen joxe asaka kon julli moom mënul ñàkk ci jullit asaka it boo amee lu ko mat mënul ñàkk ci jullit ne wamaatu xaddimu lépp loo xam ne dawal ngeen ko jiital ngeen ko min xayrin ci lu baax ah kooku de li am fusikum lépp lu ngeen def ci jokk mbokk topp yàlla def santaane yàlla yi kooku bu ci résultat bu baax ñëwee ci seen kawar lay jël si tajidu daa ngeen fekk loola mu nekk ab yool inda allahi fa yàlla ñu garteel leen ko inna allaha wér na yàlla basirun aji gis la bi ma taamalun ci li ngeen di jëfandikoo lépp xam na ko te wér na ci moom tabaarakallahu yahud yi madina yi ak nasaraani najraan yi benn bis ñuy daje kenn ku ne di bàkku ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa di wane ne affaire bi fii la comme ni nga gisee ak parti yeeg mbooloo yeeg association yeeg tariqa yeeg kenn ku ne naan fii la fii la te yow may wax fii la ñu rëdd ba ne nii lay lijjanti woo ci dara dara dara dara lam ñu saf dong ko ko fas la wa qaalu wax nañ ñoom ne lan yadxula du mës dugg aljannata illa man kaana lul koo xam ne huudan mooy nekk na di yahud waaw mooy lan yadxula jannata illa al yahuda waaye lan yadxulaha illa nasara loolu lañ waxoon yahudi ne yahudi rek a fay dugg nasaraan yi ne nasaraan rek a fay dugg yàlla na loolu moom du fi amee du dugg mukk aljana illa man kaana huuda lu dul koo xam ne dafa bokk ci mbooloo sàngam wala parti sàngam aw nasaraan nasaraan yi ne itam ñoom itam du fa dugg ku dul am nasaraan ñoom dong fay dugg keneen ku dul ñoom mënoo faa dugg de dégg nga nee na tilka kàddu yooyu ngeen di yëkkati naan diw sàngam mooy dugg aljanna mbooloo sàngam mooy dugg aljanna ku dul mbooloo sàngam wala ku bokkul ci mbooloo sàngam wala parti sangam doo dugg aljanna ña féete ca mbooloo mooma di ko wax amaani yuhum seen ay bëgg-bëgg la seen ay mébét la lu ñuy reewe dong la léegi nag yéen wax googu ngeen wax loolu bu fekkee da ngeen cee am ay preuve yu leer naññ yu wane na yéen dong nga fay dugg indi leen preuve yi ñu xam ku la leen haatu yàlla bi maanaam indi leen burhanakum seen ay fërëw yi wane ne yéen dongo fay dugg kudul yéen du fa dugg loolu laa bëgg mu leer burhanakum in kuntum sadiqin da ngeen wax ngeen dëggeey waaye la ma gëm mooy wax ñu dëgg balaa ah kay dana dugg aljana keneen kudul yéen de man aslama képp koo xam ne jébbal na wajahu jëmmam yëpp gis nga jëmm xar kanam gi la tudd ndax moo gën a tedd ci ciri doomu aadama yi gis nga la góor gi bu saaxa doon wax ne ne moom soo koy dóor jaral na fu ne mën na la kaa jox moom des kanam gi kanam googu mu gën a fonk gën kaa yëg moom la ko jëlloo rëppelloo ko ko ci suuf naka soo julli na tege kanam googu ci suuf waaye nag bàyyil xel ne dafa tudd lenn na ci lépp jàng loolu waaye ku jël léppam jébbal ko yàlla la waykat ba neen wa aslamtu waji liman aslamat lahul ardu taxamala saxran saqala wa aslamtu wajhi liman aslamat lahul muznu taxamala azban zulala am na waykat bu wax loolu mhm. kon jël sa lépp jox ko yàlla wuhu moom muxsinun nag muy aji rafetal wéetal yàlla doxalee ko comme na yàlla bëggee waaye bañ a jëfandikoo moom ni mu bëggee kooku mel noonu de falahu ñeel na ko ajruhu payam inda rabbihi fa boromam te mooy aljana wala xawfun déetug ragal alayhim di nekk ci ñoom wala hum den ñoom yahzanun ñuy jàq de ak a tiit foofa de yahud daal toog ak nasaraan ñoom yàgg nañ daal yi nasaraan daal du dara nasaraan yi dafay ne yahud kay moo nekkul ci dara ñun kay ñoo yor affaire bi temps yi affaire bi moom secret bi ci ñun la ne loolu da ngay gis ci tariqa yi ak mbooloo yeeg association parti yi syndicat sangam du dara tariqa sangam du dara gis ko noonu mu fi amee woon te ñoom ñëpp alquran la ñuy jàng ñoo bokk saar wu ñuy tari bu ñuy julli bokk lu ñuy wax kenn ku ne sa morom nekkuloo ci dara kenn mus naa dégg lii bokk bu ñuy julli fu ñuy jublu bokk benn weeru koor bokk it fu ñuy aje màkk kenn ku ne sa morom nekkuloo ci dara mus ngaa gis lii wa qaala di wax na al yahudu yahudi ne nasaraan daal nekkul ala shay'in ki dara nasaraan daal dara du dara di wax an nasara yi laysati al yahudu yahudi nekkuñu ala shay'in ki dara dara ñoom daal duñ dara te hum ñoom parti yooyu yëpp kuréel gu ci ne yadlu na ma ngay jàng ak a jëfandikoo alkitaaba téere ba te mooy alquran dégg nga waxum yadluuna alkitaaba kenn ko te ka nga jàng téere ba kazalika naka nii parti yi waxee lii xaala la am fitu addoo wax alladina gaa ya nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu dara dara mooy ñi nga xam ne jànguñu bokkuñ ci benn parti ñoom itam dañ ne ëllëg aljana kenn gënu lañ caa xeej ji na fa ñëpp moome noonu lañ fa moome mis la kaw lim comme waxi gaay yi li ñu wax rek kenn ko ne nekkoo ci dara suñu borom ne seen coow bëri na de mbir moom mënul leer la góor gi bu saax doon wax ne kenn ku ne sañ naa wax ne maa ngi nekk ci li dara ni sama xel bu julit bi lim jàpp ne mooy dëgg moo dal xelam buy keneen noonu buy keneen noonu waaye dëgg moom mu nga fën a feeñee fële ci yàlla subhanahu wa taala moo tax mu ne fallaahu yàlla yaxkumu dana atte baynahum seen diggante yawmal qiyaamati traité dossier yëpp yëpp yëpp fii maa kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fii daan ci wuute ci seen mbiri diine ci naan affaire bi fii la kii mooy dugg kii du dugg foofu la mbir may leeree ne wa man aslamu kenn gënul mën a tooñ mi man ci nit ñoo xam ne man a aaye nañu masajid allahi jàkka sunu borom nee na kenn dàquta tooñ comme li xew senegal nii ci jamono bii ñuy dund nga xam ne lépp organisé nañ ko te yéen ñu organisé di oto yi marché yi géej yi tefes yi mbooloo yi fépp fu mbooloo di daje organisé nañ ko fuur ba fu ñuy jëndee mburu fépp nit ñaa ngi fay daje ñu ne ko fay dem nanga nga ak saabu ñu ne ko fay dem e eh, tabarakallahu euh, na nga laal sel ñu ne ku fay dem nanga nga takk masque na ngeen di soree waa loolu yëpp ñu mun ka organiser te ñay nekk foofa bu ñu fa jigee ñoo ñëwaat ci jàkka ji waa lan mooy nday ñu bëgg loo gëm loo ne ñay nekk foofa nangu ñu organiser leen foofa bu ñëw ci jàkka ji nangu ku leen organiser xam nga wolof yi dañ naan duñu duñ nëbbu kenn ci rondal ku ñu nëbbu ci rondal doo feeñ li tànk te mooy li ma bëgg a wax kuy naan di nëbbu bis boo jëngee feeñ ñu ñu wax na ñoo ñu jiite nag ci mbiram àdduna ak lenn ci imaam yi nga xam ne ak borom xam-xam yi nga xam ne doo xam fu ñuy déggeeg nu ñuy déggeeg lan la ak lan lañ bëgg doo ko xam tabaarakallaahu dogal yii ñu jël joxoon ko nguur gi xalaatuñ ci yenn xalaat yi ba kenn ku ne yaa ngi taxaw di ci di mébét ndax mbir mi xamuloo fa muy teere xamuloo it kañ lay jeex xamuloo naka la ak nan la suñ ñu gëm loole nag ne mënuñ kaa organiser te ñay nekk ca tefes ya wala ñay nekk ca garage ya wala ñay nekk ca oto ya wala ñay nekk ca marché ba ñooñu ñooñu waraat ñëwaat ci jàkka ji war fee julli jumaa ñu ne mënuñ kaa organiser loolu ay caaxaan la du dëgg loolu du dëgg ndax jàkka ji ci ne ba ñu ko bëggee tëj lu gaaw gaaw yebal nañ fa ñaari policier waaye comme jumaa yi aljuma ba aljuma la mën nañoo teg ay critères yoo xam ne diggante nit ak nit dana mat meetar ku solul masque doo dugg ci jàkka ji ku laalul sa loxo ci ndox saabu mu dugg ci jàkka ji suñu paree amul joxe loxo waaw lii koy yomb na te marché ba la ñuy gën a yàgg fu la ñuy gën a yàgg waaye ñii ñu jiite tabaarakallaahu ñu leen daan wax naan dañuy xeex diine wane nañu mandarga yoo xam ne pour nga dàq xeex diine jooju ah du yomb mooy li ma la wax léegi ku ñuy nëbbu nit ku ñuy nëbbu doo feeñali tànk waaw yow ñu lay joxoñ bis bu set ñu lay joxoñ bis bu set ngay tekkale ne musiciens yi moom mën nañoo def la ñu bëgg def organiser ko théâtre kat yi nga xam ne ñooy tué série yi ci koor gi kenn ku ne gis nga na muy jegee morom di ay caaxaan kese na muy jegee morom ñoom soluñu gaa takk ñu maaska defuñu dara jegante ak jonjoo bu ko gën a métti waaw ñu nga may leen ñu jaxasoo mayoo ko daara yi bëgg a profité ci affaire bi xeex daara yi kon lañ leen daan wax ne diine la ñuy xeex ak daara la ñu bañ loolu yëpp tey weeru nañu waaye nag li kulli qatilin naihatun yanuhnahu wa laysa ala diinil muhaymi naa ñi ko war a wax duñ ko wax problème bi foofu la ne waaye sunu borom xamal nañu kenn dàquta tooñ ki nga xam ne dafa fexe ba tëj lu jàkka yi an yuskara tuddee fiihaa ci jàkka ji ismuhu xam nga buñ ne màkka def nañ ko màkka buñ ko defee dafa war a ñu def ko ñun feneen def ko dafa a ñu def ko mbir mi xam-xam la ci ay téere yu weer nañ ko teg te nag lañ gaa nga bañee woon ca mbàññaxaan nga mooy lan borom xam-xam yi ñooñu ñuy woowee borom xam-xam yi wala imaam yi ba ñu toogee nguur gi di ko jottali yañ koy jottali lu baree bëri foofu la waroon a leeree waaye wax ji cëkk na bëgg gouvernement gaaw kontaan ci ñoom defal leen logg-logg lam leen di loggal tax na nag ñoom ñëpp fi mu nekk ni ñu ngi ne kiim ndax léeg-léeg mbir nga atte ko dem ba ci biir xam ne lii nga def njuumte la arrière fa ci te fi mu nekk nii comme jox nañu loolu nguur gi pour ñu arrière dana jafe lool yal na yàlla yërëm ñu xam Eh, kañ wax na mooy imam ba bokk ci mufti yi di si moomu suñu naafile gi mën nañ kaati ji farata mënuñ kaati ji xam nga ne ay caaxaan am na waaw te naafile mi dañ ko jàng si tiiri fiq yi ñu ne bu fekkee ne yow boo demulee ci jàkka ja jàkka ja du ko teree nekk jàkk mbooloo mo du teree dana ñëw nga def ko ci sa kër sax mooy gën farata nangu woo ko faa def di defi naafila mu jaral la lu ne waaye baax na waaye sunu borom nee na kenn gënul mën a tooñ ko xam ne dafay tere nit ñu tudd yàlla mooy ñu julli ci jàkka yi tawa saa muy dox fi xaraabiha ci rappal jàkka yi xam nga sànq jàkka moom la koy dundal mooy julli gëñ fay julli ak tudd gëñ fay tudd yàlla mooy dundal place ba kat waaye bu fekkee yoon nangootee ñu julli fii nangootee ñu wasifa fi nangootee ñu xadara fi nangootee ñu def dara dara jaar nga pour yoonu mabbu jàkka ja waaw jàkk moom loolu rek a koy dundal xam nga soo ma yàlla moom suuf si yëpp fu la neex mën ngaa julli d'accord waaye li muy moom moom suuf si yëpp kenn ku ci dafa am num la ci cir loo nga xam ne soo fi jugee am na ku taxaw sañ na maa kay donn waaye wa am na annal masaajida lillaahi moom ba léegi gisagu leen jenn jàkk ko ko fi tabax ak koo mën di doon lu mu rëy rëy ak lu mu kawe kawe tabaarakallaahu eh, eh, eh bal bunt kenn du ko donn kenn du ko def dara wa saa fekk rabiha kon nii gaa yi bañee ñu julli ci jàkka yi ku wax ci kaw ku ko yëliwul bérél ko la alaaji daan wax ku ne ne kuñ fi yëliwul bérél la suñu yaakaar ne borom daraja nga daañu la yelu def la comme ni ñuy def tisbaar suñu yaakaar ne borom daraja nag ah tabaarakallaahu ñu def la comme ni ñuy def timis ak gee waaye kuñ waxul ci yow ci kaw rek wax ci yow ci suuf gaa yi nag moom comme ku xëylul jol màkk ak gontul jol manqué tabaarakallaahu noonu rek la mën demee wa saa fi sunu borom ne ulaayika yooyale gaa yi nga xam ne secte yi nga xam ne ak faramason yi nga xam ne ak nouvel ordre mondial bii dox nga xam ne maakaana nekkul lahum di leen ñeel an yadxuluha ñuy dugg ci jàkka ja illa xaifin lu dul dañoo dem ba tiit xam nga jamono ji ba Donald Trump me ba tiit gis nga indi nañ ko ci barab di ko jàngal waan di ko léemu lu ne soo demee ba am soxla ba jàkk daal ngay door di ñëw ci jàkk ji waaye su lool loolu rek doo fi ñëw sunu borom ne ñey taxawee loolu ñëpp lahum ñeel leen fi duniyaa ci adduna gii risin gàcce tey gisuloo ko te mënu ci dara te kula la gën a sori ci mbir mu nag gën la caa xóot gàcce wala hum ñeel na leen fil aaxira ci alaaxira adaabun ay duma yoo xam ne adimun yu màgg màgg la nee walilaahi yàlla moom almasriqu penku yàllaa ko moom wal maxribu ak sow yàllaay borom de fa ay namaatu wallu fu ngeen fi jublu loolu nag dafa am lu muy junju mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa lim nekk màkka yépp màkka la doon jublu ba nga xamee ne ñëw na madinatul munawara ñu sant ko muy jublu baytul maqdis ah lenn ci nit ñi nag ñu demee ni yahud di ko ñaawal naan ñun daal yonent bi jaaxal nañu moom xanaa li muy def day làmbatu bu teye mu ne fee bu ëllëgee mu ne fii léegi lan moo ciy dëgg kon léegi lan moo ciy dëgg te benn bis mu delluwaat ca xibla ba mu bàyyi koo woon di penku coow li ba mu bëree nag yàlla xamal na leen maa moom penku maa moom sow fu ngeen fi jublu rek maa nga foofa sama kattan sama lépp nga foofa jeex na moo tax mu ne walillaahi yàlla moom al masriqu penku bi yàllaa ko moom wal maghribu ak sow bi fa aynama tuwallu fu ngeen mën a jublu fa samma nekk na foofa ngeen jublu wajullahi penku yàlla bu mu gërëm bi inna allaha naka yàlla waasiun aji yaatu la ci ay ngëneel waaye alimun aji xam la mbindeef yi di seetantal seen mbir lenn lu ci ne mu koy bàyyi xel wa qaalu wax na ñoom yahut ak nasaraan ne malaayka yi doomu yàlla lañu nee ñu itakasa jàpp na allahu yàlla wala dan dem nañ ba am fit wax na yàlla am na doom yàlla na ah li ngeen wax rëy na de subhaanahu de gàcce ngaalaama yàlla sori na ko sell ñeel na ko ba li fi nekk moom yàlla wu ñeel na ko maa fi samaawaati mboolem li nekk ci asamaani wala ardi li nekk ci asamaan ak suuf yëpp yàlla mooy boroom te kullun lépp lenn ci loolu xaanituna way jaamu lañ way topp lañu lahu ñeel yàlla gis nga mu jaaree ko min baabi taxlib jël li am xel li amul lu amul xel yëpp dugal ko ci biir li am xel xaanitun way jaamu lañu yàlla la waykat ba ne woon xaanitan lillahi yatlu kutuba wala amdin min annaasi yatazil ma ngoog yàlla ba di o samawaati mooy aji fente yi asamaan yi wala arde ak suuf ko péewu ko fenn de wa ida xadaa bu na mun naa dogal amran benn mbir ci mbir yi xamal ne fa innama yaqulu du ma lay wax lahu ñeel mbir mi ku fa yakunu mu pare da nga dégg waykat ba nag ida ma arada allahu amran fa innama yaqulu lahu kun qawlahu fa yakun ma ngoog rek la demee kon yàlla moom léppam sottil mu sottil ndax dafa tënku ci ya jaayilal xaali bayna al wa nuuni noonu rek la demee wa qaala wax na lazina gaay nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu dara dara dara dara nee ñu law laa yukallimuna allah teewoon yàlla wax ak ñun wàcc wax ak ñun ne Seydina Muhammad mii dey yonent bi yàlla la teewoon yàlla ci boppam wàcc wax ak ñun déggal lii rek aw taatiyanaa wala mu indil ñu aayatun kéemaan buy wane ne yow Seydina Muhammad yow yaa nekk ci dëgg yàlla ne yonent bi nag loolu bu mu la déranger ndax lii moom waxee soon na ko fi bu yàgg avant ñoom ñi de kazalika naka nii gaa yi yëkkatee kaddu gu ñaaw gi xaala waxoon na ko bu yàgg alladina gaa ya nga xam ne min qablihim ñoo leen fi jiitu woon toppoon seen ay yenant ñoom it waxoon nañ lu mel bu yàgg-yàgg kon yow kàddu gi bu la déranger bu mu la jaaxal bu la la bi daal ndax ñoom comme xamuñ fu ñuy taxaw lu ñu war a wax ak lu ñu warul wax xamuñ ko kon loolu it bu la jaaxal dégg nga misla qawlihim sunu borom saaba tasaabahat nuróona lool qulubuhum seen xol yi ci weddi ak ak dénge kon yow sallallahu alayhi wa sallam muñal xat bayyan naa dëgg-dëgg leeral nañu al ayaati li qawmin ñi nit nga xam ne yuqinuun daañu wóolu gëm bu baax a baax ne innaa nun yàlla arsal naa yabal nañu yow sayyiduna arsal naa ka yabal nañ la bila xàq ci dëgg ñoo jox njub boole la moom basiran mbir moom ngay aji bégle képp ku nangu wa nadiran ngay aji kuppe képp koo xam ne dafa weddi wala tusal deefu la laaj an asaabil jahim ci waa sawara waaw ëllëg bu gaa yi duggee sawara kenn du la laaj lan moo taxoon gëmuñu yow kay li la war moo jotal rek gis ngeen yéen jullit ñi nag nga xam ne yéen ngi dox ak seen pas-pas yu wér fu ñu laale yàlla mu naqari leen fu ñu laalee diine yàlla ji mu naqari leen fu ñu laalee gi diine yàlla ji mu naqari leen ñi nga xam ne ñooy faramason yi ñi nga xam ne ñooy faramason yi ak ñeneen ñu mel ni ki ñoom duñu mës a d'accord ak yéen lu dul da ngeen a bàyyi li ngeen nekk ñëw ci ñoom la ñu ne wax bi ne leer sunu borom ne walan tarda du mës a gërëm du mës a kontaan anka ci yow rasulullahi wala anka ci yow jullit bi may jàkkaarloog du kontaan ci yow mukk mukk mukk mukk al yahudu juif franc-maçon yi wala nasaara du caag ak wala nasaara wala du caagee nag nasaraan yi du ñu mës a kontaan ci ne tattabia lu dul da ngaa jëfandikoo topp yow jullit bi millatahum seen secte yooyu ak seen yoonu seytaane yooyu ñu tëral boobaa la ñuy door di kontaan ci yow waaye feeg loolu amul loo leen mën di wan loo leen mën di wax dama ne duñu jubóog yow xul na leen innal huda wér ni jub njub innal huda wér ne lislaam ju rafet lislaam ju dëggu tere bu dëggu hoo alhuda mooy njubu yàlla gii alquran ji diina ji dong mooy diina ji jub waaye jeneen judul moom am na lu ca gaa yi rax ah. seen lam ni ñuy safi nag ak seen moyen seen doole seen moyen yeeg seen doole yi seen moyen yeeg seen doole yi bu leen poussé ba ngeen yaakaar ne ak liñ leen dig ba ngeen yaakaar ne da ngeen leen war a topp du baax ci yéen wala ini atabaata giñ naa ne boo toppee ahwaahum seen bëgg-bëgg yooyu ñu lay woo di la ci kalang-kalange guddeeg bëccëg subaa ngoon baada lazi gannaaw li nga xam ne jaa aka ñëwal na la min al ilmi ci xam nga jàng lu wér xam ne lii lu wér boobaa malaka mooy jawaab ji xam nga jàngoon nga ne maanaa mu day am jawaab ini charte ya day am jawaab waaye ñoom ñaar bu ñu dajee foog kenn naka rek ngay indi jawaabam ka ci des nga xasaf jawaab ja kon nag day indi jawaabu xasam ji dong lay indi xasaf jawaabu charte ji moo tax mu ne wala ini tabaata giñ naa ne boo toppee fala fala fala mbir mi boobu mooy jaabu xasamu wala in wala wala ja mooy laamu xasmu boobu maalaka amuloo bu boobaa déet mu lay ñeel minallahi kenn ku lay garanti min waliyin ku lay méngoo ca du may yàlla wala nasili amuloo ko yow mi topp yooyu nga topp nee na allasina gaa yi nga xam ne aataynaahum jox nañ leen alkitaaba téere yatluunahu nga xam ne daañu ko jàng xàkka tilaawati dëgg-dëgg jàng ulaayka yoola gaay yuminuun way gëm bihi ci alquran ji nee na am na lenn ci yahut ak nasaraan yoo xam ne ba yonent bi ñëwee nangul nañ ko nangu goo xam ne amul sikki sàkka ci li yonent bi indi amul gën sikki sàkk waaye wa man yakfur képp ku weddi alquran gannaaw ba mu dikkee nga jengal wax bi saase wax bi defe nam la neexe ak koo mën di doon ak mën a jur fa ulaayka yooyu la gaay hum ñoom kese laa wax de alxaasiruun ñoom dong ñooy way perte yi mu ñëwaat yaa bani israil yéen bani israil yéen laay wax uskuru fàttaliku leen niamat ya samay xéewal allati xéewal ya nga xam ne ana am amtu xéewale naa aleykum ci yéen waan ni man yàlla gënal naa leen alal aalamin ci seen bindee fi jamono seen maam ya ñu maa seen teg jamono ñu ne bàyyi nañ leen xel wattaqu ragal leen yow man bis ba nga xam ne laa tajisi jariñ du fay nafsun benn bakkan an nafsin shay an dara ku ne laa naa la yóbbu aljanna naa la def nii naa la def naa sunu borom nee yooyu ay sóob la de laa tajisi nafsun an nafsin shay a mi ngi nii corona baa ngi nii bu fekkee mën nañu yóbbuwaat aljanna na dañ te wala yuqbalu deeful nangu min ha ca bakkan booba adlun ak njot mooy ma joxe nangam dañ defal ma intervention yooyu ci adduna la xew waaye xewul ci àllaaxira wala tanfauha du ko jëriñ shafaatun ak rammu foofa mooy ak tinu wala hum déet ñoom yunsaruna ñu leen di jàppale di leen dimbale mu ñëw tuuti ci mbiru yent yàlla ibrahim mi nga xam ne moom lay wax laal ci bu baax a baax ndax yahud yi dañu ko gëm waaw dikkanda moo dikka tiitaroo waaye sunu borom dana ci àddu beneen façon yàlla nag afa mu koy jël di ka teg ci kanamu nit ñi pour mu nekk seen idole boo xam ne dañ koy roy di jëfandikoo na muy waxee ak na muy defee yàlla dafa jaar moom ci ay yoon yu xat natt ko ci ba mu gis ne kii li muy woote digganteem ak moom lu wér la kon bëgg na da nga fiy wuutu yàlla di doxal message sam nag balaa yàlla di la jiital ci kanamu mbooloo mi na fekk na tabaarakallaahu fa nga war a jaar jaar nga fa na nga war a mel mel nga ko moom nag yàlla dafa am yum ko nattoo ci fukki baat. yoo xam ne fanweer la ci suñu sariya bi fukk ya moo nekke ci suratu tawba taa'ibuun al aabiduun ba ce ca basiril muminin ak ya nekk ci suratu al innal muslimina wal muslimat ba ca aadalum maghfira ak ba ca bopp xalaf daal muminun ba ca ulaikumul warisuun yooyu yàlla dafa am yum leen ci nattu seet ko ca ba pare door koy jiital nag ci mbooloo mi dégg nga ne fàttalikul idi talaa ba na too ibrahima yent yàlla ibrahim baka na too rabbu boroomam <clears throat> waaw dokaa fi din dala at fin bi kalimaatin ci ay baat mooy ay santaane yoo xam ne sunu borom togg na ko pour mu def ko mooy manasikul xajji am ñu wax loolu am ñu ne déedéet galax ndiku la sarax ndiku soccu wat ay naanuwaay wat ka war lelliwe buddi pokotaan wat ka wari nak jublu penku ak tàncoog yooyu la ka nattoo woon seet ko ba xam ndax dana ko def wala du ko def yii ko yàlla nattoo yëpp ak ba mu koy jubluloo penku dañeenteeg mu nekk magam jëmm toll ne ni mu toll yàlla ne ko kaay jublu penku ah xam nga ne doy na waar loolu métti na mu nangu ko accepté ko kooku loo ko fal rek mun na ne loo ko nomee rek mun na ne ba ko yàlla too ci natt yooyu mel ni ku ko defal saaru examen mu paase examen ba fa atammahunna mu mottali ko mooy joxe ko comme naka sunu borom bëggee yàlla na ko nag bis ni ki tey nag nu mel naa la sama bopp xam nga martaba moom wala palute moom ñett rek la bu leen nit ñi fal bi la sa bakkan fal bi la yàlla fal li gën a bari ci jamono bii nak ci nit ñi mooy nit ñi fal gi ñuy fal seen bopp saa nit ñi fal leen waaye ñu bëgg a fal seen bopp moo tax jalte jalte yi am yi xew-xew sunu borom nag nag bis ni ki tey nag kaay ma teg la ci kanamu mbooloo mi ngay wax ñuy dégloo ngay digle ñuy def ngay tere ñuy bàyyi kon ku bëgg am di digle ñuy def ngay tere ñuy bàyyi foog fi yàlla bëgg jaar jaarlu dang fay jaar na mu fa bëggee ku fa jaar jaarlu nattu yim day teg it nga di ko muñ sunu borom ne waman yarxabu kenn du bañ an millati Ibrahim bàyyil na raxe bi dafa jëlgati aan du bañ mukk ci diine maam Ibrahima ji yoon wi mu jaaroon du ko bañ mukk mukk mukk man lu dul koo xam ne safiha dese na nafsahu ci bakkanam mooy kuréer ku ñàkk xam yàlla rek mooy ñàkk fonk yent yàlla Ibrahima ak lim doon doxal wala xad istafaynaahu tànn nañu ko moom yent yàlla Ibrahim fi duniya ci aduna ñoo ko li ñu ko jox ko ko ak a ak risaala lépp ñoo ko ko jox wa innahu naka góor gi Ibrahima daal bëgg naa nga xam ne lamina saalihin bokk na ci yiw ñi fii àllaaxira ci borom daraja yu kawe yi ëllëg foofu la bokk. nee na wa fàttalikul isxaala ba waxee la wu ñeel ko rabbuhu boromam ne ka aslim jébbalul jox ma sa lépp man yàlla xaala góor Ibrahima ne waaw d' accord aslamtu jébbal naa sama bopp. lépp li rabbil alamin ñeel yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindee fii jébbal naa ko sama lépp dénku ma sama bopp ma sàmba dénku ma ko ma demba yàlla laa ko dénk loo wax soo ba ngoon maa nga ca loola loo digle maa nga ca loo tere ma bàyyi yént yàlla ibrahima ba mu demee ba nga xamee nag mi ngi bëgg a faatu lii la dénk ak njabootam la jël leen seen bopp jox yàlla ndax koo ko jox ku dul yàlla rek bis dina ñëw kon ko jox xamal ne sama bopp doy na ma sëkk wëris yow kon gaawal jox ko yàlla rek wa wassa dénkaane na bihaa ci diine jooju ak jébbalu googu nangu googu Ibrahim dénk na ko banihi ay doomam la ko dénkoon wa Yaaqub ak Yaaqub sëtam dénkoon na ay doomam Yaaqub it waxoon ne yaa bani yéen samay doom ba muy bëgg a moom it dajale na njabootam def testament ne leen inna allaha naka yàlla astafa lakum tànnal na leen ad diin yàlla tànnal leen diine fii ma nekkoon ngeen gis ma ci may xëye ko gont affaire bi foofu la li yëf yi jaxasoo jaxasoo bu leen topp jaxasoo boobu ak rumbul maa boobu ak xumbaay boobu déedéet jaaduwul fala tamutunna bu leen dee mukk muk mukk mukk illaa wa antum lulu mbir moom yéen muslimuna ngeen di way jébbalu kon way jébbalu leen rek la ci teele sunu borom daal di laaj ne waaw am kuntum wala da ngeen nekkoon yéen yahud yi su di way fekke is xadara jamono ba teewalee de dee bu yénti yàlla yanqubu ba mu ne ba gisaa bi de mu wóor ko ne mi ngi bëgg a dee dajale njaboot gi njaboot gi wóor ko muy def ay testament ndax da ngeen fekke fekkee woon déedéet fekkee wuñ ko de is qaala ba mu waxee jàkkaarloog njaboot gi li baniihi ne leen waaw yéen doom maa a na lan ngeen di jaamu min baadi gannaaw sama génn aduna su ma demee ba wàcc tey jugee fi ndax xam naa dama fi jug sama baay jug na fi sama maam jug na fi sama maam Matar la góor gi bu saaxo doon wax nag moo ci ne nee na <clears throat> fii nga toog sa baay a fi toogoon sa baay maama ma fi toogoon sa maam sa maam Matar te yow ñi war a toogaat ci sées bi ñu ngi taxaw jongor loo def lu ñu jël say bagage yaa ngee kon min baax di xaalu njaboot gi ne ko bàyyi na abudu daañu jaamu ilaahaka sa yàlla ja ja nga daan jaamu miinaloon ñu ko tàmmaloon ñu ko yar ñu ci ñi màgg ci yàlla jooju la ñuy bégee wa ilaha abayka ak sa yàllay baay ja ibrahim wa ismail ak isxaqa yañ daan jaamu ñun loolu la ñuy jaamu ilahan waahidan loolu benn yàlla du ñaar du ñett du seen bakkan du dara ah seen baay nag seen xel war naa dal wa nax nun nag muslimun way wommatu lañu lahu ñeel yàlla jooja sunu borom na tilka Ibrahima ak i njabootam Ibrahima ak i njabootam da ñoom Isxaaka ak ñoom yent yàlla Yaquba ak ñëpp ummatun mbooloo lañu moo xam ne xada xalaat jàll nañu passé nañu laxaa ñeeloon na leen ñoom mbooloo yooyu ak xeet yooyu ak diina yooyu maa ba lépp loo xam ne fàggu woon nañ ko lépp lu ñu defoon ci lu baax ñoom la ñeel waaye toog bañ a liggéeyal yàlla dara xëyaloo ci yàlla ji gontuwoo ci luñ wax nga liggéey mag ñi ñëpp xaj nañ ci na ba nga àgg ci yàlla mag ma de boppam la doon walakum yéen itam ñeel na leen maa kasabtum comme li xew Sénégal lu ne ñu ne Sénégal dara du fi xew nda ñaanu mag ñi ah léegi nag corona bi moom wax naa gisutoon ñaanu mag ñi moom léegi nag nañ leeral lool wala walakum maa kasabtum mi ngi ni te wala tusaluuna deefu leen laaj yéen doomu aadama yéen waa senegal amma kaanu ci la nga xam ne mag ñi nekkoon nañu yaamaluuna di ko jëfandikoo ci lu baax la fi mag ñi nekkoon di ko jëf pour seen bopp yéen ñii seen yoon nekku ci kon Sénégal rek ngay dégg ñu dem ci rajo yi dem ci télé yi naan fii dara du fi xew nangam nangam di kañ suñu bopp a ah, la Serigne Cheikh daan wax de ne Seydi Hadj Malick moo ko wax Seydi Hadj Malick lu ne yàlla du ko seetaan seetaan na ko gën a rëy de kon nañ dem de ñu ma a bàyyi xel la nag waqaalu wax nañu ñoom yahudi na ku nu nekk leen huudan ku bëgg a jub da ngay nekk ab ziif nekkal faramaso ku bëgg a gindiku daal nekkal faramaso aw nasaara taxtadu fen nañu du dëgg sunu borom nekkul wax leen ne bal li fi nekk mooy ñun daal daañu topp millata Ibrahim diine maam Ibrahima xanifan bi moom mu jeng bàyyi diine yi juba yëpp jëm ci diine ji jub to te wa kaana bokkutoon moom góor gi Ibrahim minal musrikiina ci yéeféri Ibrahim musul ma bokk ci bokkaalekati yàlla yi xoolu wax leen yéen jullit ñi ne aman naa gëm billahi ci yàlla ak li nga xam ne wàcce ne ko ci ñun te mooy alquran ak li nga xam ne wàccee foon na ko jëmee ko ci yonent yàlla Ibrahim ak liñ wàcce woon ci yonent yàlla Ismail ak liñ wàcce woon ci yonent yàlla Isxaqa ak liñ wàcce woon ci yonent yàlla Yaqub ak la ñu wàcce woon ci seeni njaboot ak la nga xam ne joxe foon na ko Moussa ak yonent yàlla Isa ak la nga xam ne joxe foon na ko annabiyuna ñu ñi soloo ñi yëkkati seeni daraja min rabbihim tukke ci seeni borom ci ay téere wax leen ne ñun daal téere bu fi yàlla mës a ci yeneen gëm nañ ko waaye gëm bi bàyyi be ñun moom dundewuñ noona ñun daal lañ leen di xamal mooy laa nu farriq du ñu séparé bayna ahadin diggante kenn minhum ci téere yi wala diine yi déedéet diine ji fi mën di ñëw indi téere téere ba gëm nañu ko la ca gaa yi def kay tëbb ko ci suñuy weddi loolee la ñuy jëm weddi waaye la ca nekk dëgg kay amul weddi wa nun nag muslimuna way wommatu lañu lahu ñeel yàlla nii la sunu borom ne way in amanu ndegam gëm ngeen yéen yahudi wala ñoom ñoo ne yéen ndegam gëm yahudi jullit ñoo wax bi misli wala yàlla moo ne ndegam gëm ngeen yéen yéen yahudi ak nasaraan bi misli ma amantum wala eh, dégg nga maam kële yi eh, jullit ñu ne fa in amanu ndegam gëm ngeen yahudi yi sunu borom ne ndegam gëm bi misli ma amantum comme li nga xam ne yéen jullit ñi gëm ngeen ko ñoom de bu boobaa faqad ihtadaw gindiku nañu waaye wa in tawallaw su ngeen dummóoyo nag bañ a gëm fa innama hum xamal ne duma lul ñoom ñi ñàkk gëm yàlla nekk ci leen neex fii shikaak ñu ngi ci juyoo ak yéen te boobaa nag fa sa yakfikahumullahu yàlla dana la fegal seen dëngoo yooyu ak seen juyoo yooyu ba duñ la mënal tous yow sayyidina Muhammad yaag ñi gëm woowu moom yàlla assami mooy aji dégg ji alalim mooy aji xam ji li ngeen di wax xam nga nasaraan yi dañ daan def bu gën a juddoo ci ñoom ñu batise ko nañu koy batise nag mooy dafa am seen ndox moo xam ne moom lañ tuddoon maa ul umudiya dañ koy jël jox ko xale bi mu naan ci jox ko bong bong tuuti ah, tabaarakallah wis ko ci ndox mi wana ne yàppu xale bi ak deretu xale bi ak ndoxu xale bi Euh, lépp jaxasoo naag lépp yénti yàlla Isa suñ jëlee ndox mi nag wis ko nasaara nasraani yan xàkkan catholique pire ngi nii ak ñu mën a tàcc sunu borom na cuub boobu nag ñu daan cuub ndax cuub boo ko jëlee di ko def day soppi yére ba sunu borom ne am na lu gën mën a cuub nag li gën a mën a cuub mooy ngëm yàlla bu xasee dugg ci nit te mu dëgg ci moom noonu la koy cuubee ci lépp loo xam ne bokk ci mu génne ko sànni ko fële hmm? sunu borom ne sibakatallahi cuubu gi yàlla dey moo gën bépp cuub bu ngeen fii wax te wa man axsanu amul kenn koo xam ne moo gën a mën a rafetle gën rafetle mina ilaahi ci yàlla sibqatin ci cuub te wa nax nu nun nag aabiduna way jaamu lañu lahu ñeel ko waaw kul waxal ne atu xaajuuna naa ndax da ngeen di werante ñun fillaahi ci amuk yàlla ci yàlla tànn gim ñu tànnal yonentub arab te waxu moom yàlla rabbukum wa rabbukum rabbunaa wa rabbukum moo ñu moom moom leen de wala naa amaluna li ñuy jëf du pour kenn pour ñun la wala walakum amalukum yéen li ngeen di jëf pour yéen la bu ci ay duma waree yéen la bu ci leneen waree yéen la ñun daal jullit ñi luñ leen di wax mooy wa nax ñun daal muxlisuna waaye sellal lañu li ñuy def lahu ngir yàlla kese kese kese kese moo tax am yaqulun wala dañuy wax naan inna ibrahima nak yent yàlla ibrahima ak ismaila ak ishaqa ak yaquba ak lasbaat dañu wax ne ka ñoom yahudi dañu wax ne ñooñu daal kaanu nekkoon nañu huudan di ay yahud di ay chrétien ki catholique ak i aw nasara wala dañu nekk ay nasaraan ah ñoom ñoo am fit wax ne ñii ay yahud lañu woon ay nasaraan lañu woon du dëgg ku ne leen antum ndax ñi ñii aalamu yéen a gën a xam amina wala yàlla yéen daal yéen a gën a peeg mbir mi wala yàlla nag gën a peeg yàlla moo aji peeg dina maa kaana ibrahima yahudin wala nasraniyan wa man aslamu kenn gënul mën a tooñ nag mi man ci koo xam ne katama nëbbu na shahadatun ak seede goo xam ne indahu aji nekk la minallahi bàyyi koo ci yàlla loo xam ne yàlla jàngale woon na ko ci tawraat jàngale ko ci injiil yéen ngeen xam ko yàlla xam ko ngeen nëbbu ko sunu borom ne nag kooku kenn dàqu kaa tooñ wamallaahu déet yàlla bi gaafilin mu nekk ku yëgadi amma taamaluun ci li ngeen di jëfandikoo moo tax mu ne til ko loolu xeet woowu mag ñooñu ummatun mbooloo ñu ñoo xam ne xat xalat passé woon nañu laa ñeel na leen maa kasabat lépp lu ñu fàggu woon ci lu baax ci ñoom lay del si de wala kum ñeel na leen yéen maa kasatum lépp lu ngeen fàggu wala tusalun defu leen laaj amma kaanu ci la nga xam ne nekkoon na ñoom mag yaamal di ko jëfandikoo de sadaqallahu alazim ñu jàng fatih ak salatul fatih def ko hadiya ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam